Moi, j'y serai avec bête Et vous Gagne ton séjour à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Pour participer, c'est simple. Va sur la plateforme lonas.bet, parie 1000 francs minimum sur ton sport favori et participe au tirage au sort pour gagner ton voyage tout frais payé. Billets d'avion, hébergement, billets de stade, avec la possibilité d'assister à toute la compétition. À vos marques. Prêt Pariez

day fegu waaye day moytu li nga xam ne moo di stress xalaat yu bëri dang-dang guddeeg bëccëg subaak ngoon ba fàtte li nga xam ne moom moo di sa biir kër la nuit vous appartient moom mooy dëgg-dëgg fegu waaye moom mooy neexal biir kër yi kon lii la wax boo ko bëggee da ngay woote ci 77 751 59 59. jadi jadi Yon di gwenye di viway ci Ousmane Sonko la ndax nag bu neena len bu ñu Ousmane Sonko dañ ko lalal ay pexé ay nax men la buñ ko nee Ousmane Sonko dañu dañu complot Ousmane Sonko dañ len di nax te nag sénégalais yeewu nañ ba tax na rek Pape Ngagne bi ginnaaw bi mu dalalee benn responsable APR mu ne ko est-ce que du yéen yéen a fexeel Ousmane kooku nag indi ci ay leera wax ci li nga xamante ne sénégalais yi moom la ñu xam mooy que Ousmane Sonko moo demal boppam fekki Adji Sarr Ousmane Sonko moo waxal boppam diggante moom ak Mame Mbaye Niang nañ dem seetaani vidéo rek ñëwaat. mais loolu est-ce que dina yomb ci benn gouvernement boo xam ni benn état boo xam ni mi ngi leen di harceler opposition bi est-ce que dina yomb. waaw

mais loolu est-ce que dina yomb ci benn gouvernement boo xam ni benn état boo xam ni mi ngi leen di harceler opposition bi est-ce que dina yomb. harceler waaw harceler muy ubbi candidature comme ni nga xam ne moom non non non li may wax mooy. attends ban ban lañu harceler. Oh. déet da nga harceler moom a jaaxal di. kan lañ fi harceler comme ça on fait le point. mais li li li nga xam ne tey moom la Ousmane Sonko di dund nan nga ko mën a jàppee. ñoo ko déggandoo ñoo ko seetandoo ko Pape Ngagne ñëwee est-ce que du yéen yéen ñay harcelé ñi nga xamante ne ñoo ne ci opposition bi yéen a leen teg benn fitna bi benn pression bi moom nag nee na leen ban pression ban harcèlement lan mooy harcèlement bi ubbi euh, fichier bi ne ñëpp nañ dem xool ku am parrainage nga nekk candidat loolu mooy harcèlement bi wala Ousmane Sonko mi nga xamante ne comme ni mu ko waxee ci biir vidéo bi Ousmane Sonko mi nemal boppam Sweet Beauté Ousmane Sonko bi mi waxal boppam diggante mooma mbay ma may ñaa ba tey li ko ci fekk fekk ko sénégalais yi fàtte wuñu ko nee naa leen képp ku toog ne Ousmane Sonko dañ laa fexel sa gis-gis nga wax dëgg la mais yow en âme et en conscience xam nga ni du dëgg ndax Ousmane Sonko bi muy dem kër aji Sarr seen Sweet Beauté ñu fay daje kenn yëgul kenn tinul ba ci ñi nga xamante ne moom la bokkal kër muy ñaari soxnaam yëguñu ko donc Ousmane Sonko kenn fexeelu ko xëy na nag bu ñu ko fexelee tamit wala bu ko harcelé tamit après ces actes lañ ko harcelé mën naa ne mais en tout cas responsabilité bu fekkoon dañ ko dee dañ koy dee di xayma à cent pour cent Ousmane Sonko les quatre-vingt-dix-huit virgule cinq pour cent qui responsable dara nañ bi Ousmane Sonko fi mu fa encore une fois ba ci scandale du jour di El Malik Ndiaye mom ba que mu ngi japp fi ne Ousmane Sonko plan A waye moy sen plan B ginaaw fan yi ñi que bi ñi gisee ñu naan Bassirou Diomaye Faye moy sen plan B muy wax yo xamantene ne ci bopam xamuñu seeni wax la mënuñu jàpp seeni wax ndax ñoom ci boppam dañuy wax léegi weddi seen bopp léegi bu fekkee ni fausse nouvelle la ñuy diffuser mooy que lan parrainé Bassirou Diomaye Faye c'est parrainé Ousmane Sonko ñoom la ba tey maanaam bu fekkee ay fen la ñoom moom fen yi ba léegi bu fekkee ay fen la ñoom fen ba léegi parce que nag communiqué bi ñoom ñoo ko publier ñoom ñoo ko wax te tey bu ñu toogaatee El mi nga xamante ne ci ñoom la bokk naan amuñu plan B amuñu plan C seen plan kenn la muy Ousmane Sonko yaakaar naa ne yéen Sénégal yi nga xamante ne yéen a topp newoon naa leen majorité bi toppoon na sonk waaye fu mu nekk ni minorité bi ñoo topp Ousmane sonk minorité bu ndaw ñoo ko topp li tax ñu topp ko nag mooy ci wax weddi yi mu nekk. ci njuuj njaay yi mu nekk ci wax léegi weddi léegi boppam ci yi mu nekk parce que am na ñoo xamante ne boo waxee benn ñu xool gis ni li nga wax méngoowut ak li nga waxoon ñoo ñu ay nit lañu ay dañuy xalaat yor seen xel dañuy daal di wàññeeku sa ginnaaw dem seen yoon te Ousmane Sonko ñu bëri loolu bokk na ci li tax ñu bàyyi sun ko donc ñu moom tey El Malick bu toogee di naan. waaw Ousmane Sonko mooy seen plan A wax mooy seen plan bi man daf may jaaxal nañ dem déglu El Malick li mu wax ginnaaw bi ñu ko dalalee fële ca. daf ñu woo réunion pour plan B ñu waxtaan ba juboo ci kàddu ñu nekk léegi suñu plan B suñu plan A Ousmane Sonko la waaye suñu plan B Sonko Ousmane la dégg nga ginnaaw yàlla la koy tere yegg ca candidature ak gagné nekkul ci mim réew. weer waaw ya, damay bañ nga foyé sa xel rek nga bal mukk si papa ngañ non jolof jolof nga jolof jolof la xam nga ñu duñ wax luñu gëmut elage non non non waxal rek xam nga yow mën nga wax duñu wax luñu gëmul papa man lu may wax suma ci amul yaqeen duma ko wax bu jëru sax ngay sori xam nga fa ñu joggé man nak lima bëggoon wax dafa melni papa ngañ wax nako ko ginnaaw bi ñu seetaane vidéo bi est ce que nekkul di fowé xelam parce que nak mëno gis ni ki nga àndal mënta bokk nga naan mooy sa plan A mooy sa plan B mooy falu Macky bu génnee mooy dugg au nom de quoi pourquoi ba léegi ñuy persister di di di sonal sénégalais yi parce que man je me dis léegi du manipuler de dañoo nekk di sonal sénégalais yi ci mbirum Ousmane Sonko Ousmane Sonko tey dafa war a mën a féetee bor féetee bor Ousmane Sonko ay waxam dañ ko war a jël laj taxañ ko rek. takk ba mu dëgër rek féetale ko bor parce que Ousmane Sonko ci plan politique fu mu nekk nii waxuma la deena di waaye ay mbiram da cee jeex ndax koo xamante ne munoo fal munoo folli fii ba deux mille vingt neuf kooku yaakaar naa bu ñu nekkaate di wax ni day bokk wala du bokk te mu leer nañu du bokk ay naxaata la ay fen la ay wax yoo xamante ne dañuy dañuy dañuy jaxase xelu Sénégalais yi dañuy sonal Sénégalais yi parce que quoi qu'on puisse dire ak nu mu munti mel Ousmane Sonko am na ñu ko bëgg. donc ñi ko bëgg ñooñu yéen da ngeen leen war a seet ragal yàlla wax leen ni ko ah ki ngeen bëgg kat mënta bokk ginnaaw mbëggeel bi ngeen am ci moom loolu kese ngeen desal ñi bëgg Ousmane Sonko wax leen dëgg wax leen ni Ousmane Sonko ne pour pas participer aux élections loolu kese ngeen leen desal mais di toog ci plateau yi di naan waaw mooy suñu plan ah mooy suñu plan bi day bokk. mooy cinquième président vous vous foutez de nous da ngeen ñoo yëpp dangeen ngeen ñi ànd ak Ousmane respecté woo leen ñenn ci minorité bi bëgg Ousmane Sonko ñi des as tuuti li des li bëgg Ousmane Sonko as tuuti li des te nanguwul yeewu bañu du question yeewu ñi dañoo bañ xam nga mag bu bañ mënoo si moom dara am ñoo xam ne xam nañ mais dañoo bañ mag bu bañ nag mënoo doo ko doo doo ko saaga da nga koy seetaan. ngal la ñooñu di leen ñi nga xamante ne xam nañ te bañ dégg wala bañ gëm ni Ousmane Sonko du bokk yéen ngeen joué le rôle mu rôle bi ngeen war a joué mooy lan xamal leen ni ah dëgg la bëgg ngeen Ousmane Sonko bokk bëgg ngeen élection yi mu jongante ci waaye mënta jongante mënta bokk mu leer ci seen bopp une bonne fois pour tout moo gën ngeen toog ci ku leen tàllal micro mooy Ousmane Sonko dina dem pale Ousmane sonk dina bokk. ay kilifa di tok ci ay plateau di fan. di gëmloo Sénégalais lo loo ñom en âme et en conscience ñom buñu ñu ba caméra ay fay xam Ousmane Sonko du mëna bok alors pourquoi lolu pourquoi nga tok aduna bi di la seetaan ngay fet respecté leen ñi bëgg Ousmane Sonko as touti man yaakaar naa ni respect la c'est tout ce que je peux juger ci lolu lolu kese la ci mëna a jàngat mooy que lan manque de respect à l'égard des gens qui aiment un tout petit peu Ousmane Sonko. kese loolu man noonu man dom dom de mon point de vue personnel noonu laa ko gis yi mooy ko ñi respect ñi bëgg Ousmane Sonko ñiy toog ci palaato yi respecté wuñu leen ñi mën a waxal Ousmane Sonko respecté wuñu ñooñu. ba tey ci seen scandale du jour xam nga Sénégal bi Ousmane Sonko ne tëll bi problème yu commencé dafa am ay journaliste yu am fulla yu am fayda yu fi nekkal dëgg ñi fi nekkoon di wax. te nangu ñu leen déglu ku wax ñu taal sa kër ku wax ñu taal sa oto ku wax ñu saaga sa ndey ku wax ñu xool li gën a ñaaw rek bu dee góor nga ñu ne borom ñaari tur nga bu dee jigéen nga ñu ne day jaay boppam yow waxal la lu lu arrangé wul Ousmane Sonko mooy yow ko bànni nga trafiquant nga sàcc nga fenkat nga. waaye dafa amoon ay journalistes yoo xamante ne bu ñu leen déglu woon tey xëy na situation Ousmane Sonko dafay changer wala du egsi fi mu nekk. ku ci mel di Cheikh Yérim Seck nañ dem déglu video bi nga xamante ne Cheikh Yérim Seck defoon na ko te waa ex Pastef bàyyiwuñu ci woon xel te man jàpp naa ni waroon nañ cee bàyyi xel waroon nañ jël en compte li nga xamante ne kii di Cheikh Yérim Seck daan na ko def mu nekk ay analyses yu pertinentes mu nekk loo xamante ne dafa mel ni moo leen jiitu ci ñoom lu ñuy xalaat mais ñu koo déglu ñoom. njàqamti woon nañ nit wax rek lu leen arrangé pour ñu saaga la wër sa kër taal ko wala wër sa oto taal ko wala wër sa boutique taal ko wala jiiñ la ñaari tur seen arme loolu kese la amul leneen bu dee góor ñaari tur góor jigéen nga bu dee jigéen da ngay cagatu ñaari kese lañ am comme arm bi ñuy attaqué képp kuy wax dëgg jëmale ko ci Ousmane Sonko. Ousmane Sonko ci boppam moo sarxee waa Pastef cest à yow nga nekk dans un combat politique boo xam ne yow yaay le principal adversaire du régime am popularité boo xam ne kenn mënu ko dindi. dem ay élection yo xamni yépp dang ko gagné mi nga nek di wax di wax di wax rek amna un jour ma def ben émission man len Ousmane Sonko limi wax dafa bari wa passé fi tok ay mois di ma saaga ci lool waxam joji moko ko jural li wax moy tax ñu parce que dafa waxa waxa ba wax taxaw ni ki épalé nga nan ko ma ngi am rapport bi tok ci yow ñu wona tribunal ngay dédé lok di dof dof lok mais yaa ngi rapport bi tokki mais jóg joxe rapport bi ñu bàyyi la nga def sa yoon. ñoo ko déggandoo ñoo ko seetandoo li mu wax muy dëgg bu wér kën këng Ousmane ko dafa am popularité Ousmane ko dem élection am majorité am loo xamante ne mu ngi dooru dugg te kuy dooru dugg sax xalaatuñu woon dina ko am mu wax ba yàq ko mu dox ba yàq ko te ñu ñëw di leen rectifier ñu leen di saaga. ñu jël ñu jël seen temps toog ci plateau yi nangu Sénégal ñenn ci sénégalais yi saaga leen di rectifier Ousmane Sonko di jéem a indiwaat Ousmane Sonko ci yoon bi ñu ne ko doo ci dal boo waxee saaga lañ la ciy dal wala ñu jël video bi ñu dagg li leen ci arrangé ñu dugal statut wala ñu dugal partage yi su ko defee sénégalais yi diaboliser la sénégalais yi saag sa yërëm seen bokk na ci ñi nga xamante ne bi Ousmane Sonko nee naa defee lu muy def ba pare bokk na si ñoo xamante ne tey bu ñu doon xayma li leen saaga. moom bosam kenn mënu ko xayma ak ñeneen ak ñeneen ay yeneen ak yeneen journaliste yoo xamante ne bëriwuñu mais ñoom au moins ñoom ragaloon nañ yàlla bëggoon nañu Sénégal ba tax dañ doon wax sénégalais dëgg boo xamante ne popularité bi toppoon Ousmane sonk bëgguñu ko dégg ba tax boo waxee ñu saaga la lu lu ñu la xamal ci lu ñaaw këpp ko sa kaw léeg sax duñ la xamal mais dañuy créer juste pour déstabiliser ñooñu Cheikh Yérim Seck fi mu nekkoon ba léegi fa la moom ñëwul rek plateau yi di wax dafay def investigation te dafa dafa xam li muy def mën li muy def mais comme ni mu ko waxee rek amoon na ay temps boo waxee moom euh, lu dul saaga amul leneen lu ñu la tegal maanaam du ñu dégg. popularité bobu toppoon Ousmane Sonko bu fekkone Ousmane Sonko il était intelligent Dougul ci problème yimu dougu dugg wourna yalla. waxuma du du premier tour mais xamna ni ne dina doon bokk ci ñuy dem deuxième tour parce que popularité bi ko toppoon la parce que ni mu won la parce que limu gëm lo jeunes au début bi mu duggee ci euh, langue politique bi mais malheureusement lepp liko ko c'était pas solide parce que fen la te fen lu lal du jur luy njëriñ doomu aadama parce que fen la ñun ay jullit lañ te yàlla dafa am lu mu ñu tare donte mënuñu bàyyi lépp mais fen bokk na ci li nga xamante ne moo gën a araam ci ñun lu ñuy def te Ousmane Sonko dafa jël loolu rek sol ko ne du ko simbi te du ko bokkee kenn boo ko waxee nag ñu saaga la amul problème mais sex Yérim Seck bu ñu ko déglu woon xëy na situation bii waxuma du dugg kaso de mais du tollu fii du am empleur bi mu am nii mais Sonko wax na Sonko def na. Sonko naagu na ba léegi Sonko fi mu nekk mën a bu bëgg na wax du mën a wax ñoom ñooy créé naan Sonko wax na lii Sonko def na lii ci lii la ay lépp ay tàppale la ñu naan Sonko buñ ko mënoon yokkal sax ñu yokkal ko pour pour mu gën a yàgg kaso loolu yéen yéen a koy wax yéen ñi nekk ci biti. waaye du Ousmane Sonko. ba tey ci seen scandale du jour de ce lundi 15 janvier fii ci VIP People la scène vous informe juste et vrai leen ñun yéen lañ fi nekkal te saa su nekk dañ leen di fàttali li nga xamante ne moo fi xewoon li nga xamante moom la Ousmane Sonko def sénégalais bëgg ko fàtte sénégalais bëgg a diaboliser ki nga xamante ne mooy président Macky Sall ñii naan président Macky Sall moo ko duggal ñii naan président Macky moo ko complot yoo xamante euh, que ku fekk président Macky Sall ak Ousmane Sonko di leen comparer ci wàllum politique da ngaa yàpp président Macky Sall Ousmane Sonko tolluwul fii président ci wàllum parcours je dis pas waxuma waxu nit de doomu aadama ak kenn gënul kenn loolu xam nañ ko mais maanaam ci wàllum parcours ci wàllum langue politique président Macky Sall ak Ousmane Sonko ku leen di comparer da ngaa yàpp président sama point de vue personnel la nag fi mu jaar Sonko bu fa jaaraan du def erreur président Macky Sall dañ koo nangul mën-mënam ci wàllum politique te du ci boole ak wax Ousmane Sonko na wax a ko sonal ndax wax moo ko xañ li nga xamante ne mooy bokk ci élection 2024 yi wax moo ko ko xañ il faut ñuy fàttali sénégalais yi li dugal Ousmane Sonko Cap Manuel li tax ba Ousmane Sonko du bokk encore une fois te ñun loolu lañ fi nekkee de ñun fii ku fi bëgg a fàtte dañ lay fàttali bokkut ak ñi nga xamante ne nag. fàttaliku nañ mais dañoo bañ a dégg parce que am na si yow am na ci sénégalais yoo xamante ne mu loo wax wax wax wax wax munoo wax ba ñu dégg. ñu man sama me dis que du ñu ay sénégalais wala ah ah nekk ay sénégalais lañ mais xamuñu lu ñu bëgg en ba tey ci seen scandale di jour kii di aadama Fall moom nekk dafa def révélation neen Ousmane Sonko dafay génn day day day génn Sénégal révélation de taille la dañ dem déglu vidéo bi ñëwaat.

nañ dem ba. ngi ci loxoy yoon. après. révélation de taille nga fi wax. non lii c'est pas c'est la première fois ma koy wax lii. déet Ousmane Sonko day génn dëkk bi day fekk xanaa mu génn ci loxoy yoon lan la ñuy waajal lu nekk ci suuf. ñuy préparé nañu bàyyi sénégalais yi ñuy nax. Ousmane Sonko day génn dëkk bi moo ko wax Adama Fall nee na. ci ay fan yu néew Ousmane Sonko dina génn dëkk bi d'accord Ousmane Sonko dañ koy exiler walla damay laaj rek d'accord Ousmane Sonko day génn dëkk bi ñoo ko déggandoo ah du samay wax nag seetaan nañ vidéo bi dégg nañ li mu wax nañ jàpp li mu wax rek ba gis leneen man moom maa ngi xaar nañ ko nañ nañ dégg nañ jàpp li mu wax rek ba gis leneen rek man loolu laa gis. wala ku ci am leneen tamit ku ci am lu gën a leer aussi mën nga ñu ko wax. ci seen scandale du jour kii di Père Bécaye yal na yàlla fëgg boppam yàlla may ko wér moom dafa wax lu am important ginnaaw bi ñu ko dalalee woon euh, ci euh, plateau bu TFM moom nag li mu wax yaakaar naa ñun ñëpp wax nañ ko ñun ñëpp wax nañ ko ne Ousmane Sonko ñi ñi ko jege woon kenn bugg ko ñi la bëgg bu du ñu gis kàmb ngay dem ci kàmb bi di ci waaj a dugg te duñ la ne kàmb am na ci kanam wala am na pax bu nekk si kanam ku la bëgg ba gisee ngay jubali ci pax da la ne eh, xoola sa kanam pax am na mais waxuñu ko dara dañ koo seetaan dañ koo muboo ba am lu ñu bëgg ku ci nekk nga am sa tur ku ci nekk nga am say transfert d'argent ku ci nekk nga am loo xamante ne yow sa bopp bu desoon yow kese da ngay dund ba dee doo ko am nga am ku ci jëmm Ousmane Sonko donc nag Ousmane Sonko. mën naa ne man ñoom ñi ko jege fayuñu ko boram parce que man tey je m'attendais à que certains tey bu ñu jàppee Ousmane Sonko ñoom ñu def exprès sax wala ñu woo nit wala ñu dem ba gendarmerie ne man jàpp leen ma ginnaaw bi ngeen jàppee Ousmane Sonko man tamit téye leen ma ndax doomu ndey moom bu jooyee da ngaa war a jooy bu reetaanee nga reetaan loolooy xaritooti waaye yéen da ngeen xaritoo Ousmane Sonko bëgg Ousmane Sonko Ousmane Sonko mu ngi kàpp ma ne yéen ngeen di dox seen soxla. ñee di dem soirée yi ñee di dem ay soirée de gala ñee di fecci ñee di dox seen soxla waaye doo leen gore dem fekk Ousmane Sonko fu mu nekk ngeen tudd fa yéen it ah baax na nañ dem seetaan Père Gaston lu mu wax. daal yéen yéen yéen yéen bëggu leen sax Ousmane Sonko dañ koy bëgg bëggul yéen su ngeen sax Ousmane Sonko du falu yéen yéen Ousmane Sonko xale bu baax la jàng na borom mbokk la Sénégal la dëkk mais yéen ak parti yi ko topp ak ñu nga xam ne de nga maam. ñoo gën a bañ Ousmane Sonko. chef de parti yi toog ak moom. di ko wër opposition bi ngay waxal. opposition am ñoo gën a bañ Ousmane Sonko suñu sañ Ousmane ah Sonko. suñu yàlla xam nañ suñu sañ Ousmane Sonko ñu tëj ko keroog. ah. taxawaalu gi taxawaalu ji këram ak ñëw di toog ak mu toog seet ci kenn bugg ko ci. dañ doon naaj naaj sax dañ doon naaj naaj sax di def yëf yi naa fekk. kenn bugg ko ci parce que Ousmane Sonko mujjee ñëw gën leen a siiw nangu seen aura ñoom ñëpp ñu taxaw tey mën ñu cee lekk ñu ne nañ ci xëpp suuf. dañ koy bëgg bëgg lu ñoo déggandoo vidéo bi bëgg ñu Ousmane Sonko nit boo ko bëggee bu jooyee nga jooy bu reetaanee nga reetaan bu jaaxlee nga jaaxle loolu la ñuy wax doomu ndey loolu loolu la ñuy wax xarit ñu ne xarit day gën doomu ndey dem leen fekk Ousmane Sonko fu mu tëdd yéen ngeen tëdd fa. ngeen gore bu génnee ngeen génn sagam da leen daan ne def leen lii ngeen def tey mu ngi fa dem leen fekk ko ni da ngay gore waaye am leen neex. ku nekk am ci tey ku romb ñu naan kii El Malick la biram su Souleye Diop la foo leen génn ñu xàmmee leen te ginnaaw yàlla ak yonent bi ci jëmm Ousmane Sonko moo tax ci barke Ousmane Sonko lañ leen xamee di am ñoo wëri tey seen poos yi fees na seen compte na si jëmm Ousmane Sonko la feesee de tey ñu bëri tey ñu ngi leen di tàllal ay micro ci jëmm Ousmane Sonko moo tax kenn xamu leen woon am na journaliste yu fayeeku nii Ousmane Sonko moo tax ñuy fayeeku am na ñuy wax nii Ousmane Sonko moo tax ñuy wax. donc yéen da ngeen war a gore bu tëddee ngeen tëdd bu jugee ngeen jug man moom sama doomu ndey moom bu nekkee ci problème man damay nekk ci problème man man moom sama doomu ndey bu jooyee danaa jooy bu reetaanee danaa reetaan bu tëddee ma tëdd bu jugee mu jug wala mooy sama def pexe xool nu muy jugee wala nu muy reetaane waaye un deux trois ngeen seetu Sonko naan mu ngi si jàmm te doo leen di wax sa dëgg da ngeen di sos naan mu ngi si jàmm mu ngi sport mu mu ñuy ree yéen. yéen ngeen desee ngeen bëgg Sonko nag ngeen seen doomu ndey gii dese naa di gudde lii. tey ci seen scandale du jour kii di Coura Macky nag xaw na raar tuuti ci réseau yi mais ñëwaat na nag démb ba léegi nag mu ngi wax lu ko neex waa ex-Pastef Guy Marius Sagna mayu ko dara Birame Souleye Diop El Malick nañ dem déglu Coura Macky. agressif bon soxor sénégalais yi wóoluwuñ la yëfi golo nga doon def euh, ensemble Abbas Fall sàcc nga. xaalis kan waa Pastef nga di tuxaas ñu lay wër nga ni pat génn ci groupe yëpp salaam salaam salaam salaam salaam salaam rang ci sunu kaw benn bokk yaakaar APR muy neex ah xanaa di leen ñaanal yàlla rek di len wax United aja honorable Kouramaki day doon naayil bopam. waaw kay dama doon naayil sama bopp waa sàcc sama bopp tuuti gis sax yi gis bandi cerveau yi seen équipe bu ndaw biram Souleye Diop da nga gàtt président bu gàtt dootul am Sénégal Guy Marius Sagna criminel nga agressif bon soxor sénégalais yi wóoluwuñ la yëfi golo nga doon def euh, ensemble Abbas Fall sàcc nga xaalisu waa Pastef nga di tuxaas ñu lay wër nga ni pat génn ci groupe yëpp El Malick prisonnier nga la mu tànk nga takk dama ni leen opposition bi dafa bari prisonnier seetaat leen li ma leen wax kan moo nekk ci opposition bi te doonul prisonnier ngeen di laaj sunu réew mi seen équipe bu jaxasoo bu ndaw Mimi Touré workat bu mag ba Aïda Mbodj mi juddu 1801 nekk Sénégal lu ne te tekkiwul dara mais yéen man maa leen gën a baax maa leen gën a yéwén ëpp leen ma xam-xam yàlla. <laughs> du maa ko wax de ñëw seetaanandoo vidéo bi Aba nga Guy Marius Sagna bànni nga criminel nga euh, yëfu golo nga doon def assemblée nationale ndax moom dafa bokk woon kees gi nara dem ak moom fan la ko nara àndoon ak moom nag mooy kii bi ñu doon voté noonu xaw <laughs> këf ne day yóbbu. mama mama mama kuramaki euh namon nañ la mom mom day wax ngay re mom mom day wax di comédie waye day wax di wax lu la ni mom lu ko saf lay def borom gon bi moytu len ko de waye mom ni mu yabé gi marisanya amut du ko may dara dara du ko ko may lu ne la ko yek ak wa ex passif tax léegi moom waxtul Sonko léegi Sonko xam nga Sonko léegi daa feetee bor léegi ñi ñi ñi des la jël fu mu nekk nii ñoom fu mu nekk nii ñoom la jël dootoo leen ko defati ku rëmaki nee na ñëwaat na te xam ngeen ne bu ñëwee moom lu ko saf lay def ndax mooy borom góor ñi. dañuy dem seeti ji kii nga xamante ni. c'est le chroniqueur judiciaire bu nekkoon ci télévision bobu ñu dippee ko Walfadjri muy Papa Ndiaye ginnaw bi nga xamanteni amon à na fi ay jafé jafé ak justice ci walu ay diffusion fausse nouvelle jëlélé ko ci li nga xamanteni ni dossier Ousmane Sonko Adji Sar ginnaw bu mu yëkëti won ay propos dal di accuser qui di président de la République Macky Sall ak ay juge ak yenn magistrat ci bir lolu lañ ko convoqué woon foofu ca sûreté urbaine ginnaw lolu mu jural ko mandat de dépôt si la bénéficié benn liberté provisoire après sa sortie de prison dañuy gis ni que mu def ben déclaration bu fracassante bo xamanteni aduna àdduna kep këpp la bett ci biir lolu nak mu jural ko li nga xamanteni moy mooy station émission bi foofa ca Walfadjri jusqu'à nouvel ordre mais kii di Pape Ndiaye dafa delu fofu ci plateau Sénégal 7 dal di persister ba nopi dal di confirmer li nga xamanteni moy ay cadre yi nga xamanteni yëkëti won nako dañuy ko déglu ci pap ndjay delu ci wat donc kay tontu bobu kay fu mu ne nii am fi amna fi yow. waaw euh mbir mi fan la defoon déclaration bi. wante ne adduna bi yëpp dañoo dëppoo woon di la jaboliser yow ma am ay preuve firnde lañ lay jiiñ dara du ci dëgg dara bu ci am dama cay war a toog noppi ci. boo dëggoo moom doo ci noppi. voilà de la même manière également bu ñëpp jàppee ni kat yow mi nii kat nangam sangam lii euh, dafa am loo xamante dañ la koy jiiñ positivement mu leer ma ni lii nii nii am na loo xamante ne lu ci ñuul la c'est pas de notre devoir en tant que journaliste ñu signaler ko. ci. bu ma gisee loo xamante ne lu jar a critiquer la ci opposition da damay noppi ne du ma ko def. déedéet. kon ma wàcc sama yoonu journaliste bi. mais du tax nga bàyyi bu waxtu bi doog ko def waxtu bi nga génnee kaso jafe-jafe yi daan woon sa kaw. est-ce que du waxtu boobu laa am information yi. yàggoon nga gis li nga xamante dëppoo la yoon ci réew mi te daawoo ko wax xëj na. wóor na la. non dama ni xëj na est du moment boobu noonu laa ko gis. bañ naa ko bañ xëj na. voilà man woon bu ma ca waree wax dinaa ko waxaat Walfadjri muy benn

wal fajar laa ko déclaré woon donc bu ma koy waxaat foofu laa koy waxaatee léegi kañ loolu kañ bu yow kañ bul yàkkam c'est-à-dire damay bañ nga waxaat ko foofu ñu mise à pied waat la loolu laa lay bañal

di la tëm demm di la wax loo xamante ne amul moom ci boppam mu jaar ci wax yooyu wax ko mu tourné dem ba ci biir gëstu ji xam ne li ñu doon wax yëpp du dëgg est-ce que jotul mu dellu si waat ci askanam wax leen lan mooy dëgg en tout cas je crois que loolu mooy rôle un bon journaliste tey soo diffusé nouvelle ba nga dem ba ci biir xam ne lii la ñu la doon jox wala lu ñu la doon wax manipulation la wala fake news la wala mensonge la donc sa ngor daf la war a may nga dellu si waat ci plateau bi jàkkaarloog askan bi nga ne man mii kat maa leen doon wax lii waaye ndekete ba ma demee ba ci biir fekk naa ne du noonu li moy deug bi en tout cas bim ko waxe dal je crois que loolu amna ay sanctions yo xamantene dal na ci ko particulièrement fofu ci direction wal fadjri dal dinañu suspendre émission te donte bi mu wax ay accusations jëmale ko ci état du Sénégal ak le président de la République ñepp ko don glorifier manam du tatchu diko wax lu nekk tay yakarna ni fi tollu ni je crois que pap Ndiaye amna raison ñu amna ñu raison ci manipulation yi nga xamanteni ñu ko doon diffuser ci ay information yo xamanteni c'était archi faux et super faux en tout cas muy ay cadre yo xamanteni pap Pape Ndiaye nako dal di koy confirmer waat donc comme je dirais toujours ñu nekkon ci ginnaaw Ousmane Sonko n'était que des manipulateurs des menteurs di inventer ay fausses nouvelles ay fausses informations diko jox askan bi tay yakarna ni lolu mo leen jural sen parti ñu dissoudre ko ba ñu bokk ci élection présidentielle toujours dans votre scandale de ce mardi 6 janvier sur la chaîne des grands événements VIP People TV comme ni l'avons leen koy waxee ginnaaw bi nga xamanteni ki nga ni le journaliste de RFM di Babacar Fall yëkëti won na ay cadeau dal di attaqué king nga xamanteni ni son excellence le président de la république ginnaw bi mu impression par rapport au revue de presse niñ koy joxé japp ni ka yëfu théâtre la yëfu comédie la ki di Babacar Diop Fall dafa attaquer won ki di président de la république Macky Sall jëmele ko ci lolu alors que y a tellement de personnes yo xamanteni attaquer attaqué nañu presse sénégalaise ku ci melni Ousmane Sonko ku ci melni ni waa Pastef ku ci melni ñi ànd ak moom mucc ci yey yàbbi ci pourquoi Babacar Fall Macky Sall wax li nga xamanteni tay su dee leer na ko moom gisu ci bopam pourquoi muy tontu waye ku mom xar bi nga baye buum bi dafa melni Macky Sall lu mu wax deug la lepp luy revue de presse fi ci télévision lepp plus luy revue de presse ci radio yi lépp luy revue de presse ci site internet yi manam dafa ànd comédie ànd ak théâtre manam àndul ak dara lo xamanteni dafa jëm ci professionnalisme mais ginnaw lool nak yaakaar ni tontu du forox ki nga xamanteni ni mooy job di l'Amazon du président Macky Sall indil nako tontu bo xamanteni daf ci bolé élégance boole ci pertinence ak cohérence je crois que nañu déglu ci kii di Jéegi Diop ginnaaw bu mu jàkkaarloog ki nga xamante ni mooy Babacar Fall. réew mi ngeen defee lu ñaaw koy euh, waxees na ko loolu itam xam nga mënoo mënoo leen ci dara. waaw xam nga ku nekk boo defoon lu ñaaw rek ñu jël projecteur taalal la ko waxal la ko kon am na ñoo xamante ni tey duñ dox ci mbedd yi il faut de la tenue et de la retenue ku nekk am na loo xamante ni yaa ngi sa dëgg sa tànk bu dul yow mu nekk sa doom bu dul sa doom mu nekk sa nijaay bu dul sa nijaay mu nekk mënoo mëngale état gouvernement ak nit ñi. waaw moo bokkul gouvernement bu deful lu ko war des koy wax état ak gouvernement duñu ay extraterrestre waaye des koy wax ak teggin gis nga nit teggin bu yàkkee si yow ak worm nekkatoo nit bàyyi ma ngeen ne parce que ku mu nekk waxul lu la neex amatoo xel. waaye nag lii tax nga nekk nit dëgg-dëgg lan moo tax nga am xel dëgg-dëgg booy wax da ngay jox yor ma Afrique la ñu nekk dañuy teg deux points dafa am loo xamante ni c'est la société am loo xamante ni yoon la. société bi lan la nangu mag day jiitu xale topp ci ginnaawam kilifa am nag ku nangul nit cër kenn du nangu sa cër kon nag ku am cër booy wax ak moom dafa am nooy wax moom kenn bañul kenn wax kenn dara kenn bañul pub kenn critiqué waaye ku dul kuy nangu critique tam aussi da ngay nangu. opération gaaruwaale. waaw ku nangu George. Ah, a gaaruwaale. loolu loolu laa bëggoon wax sax. George loo bëgg a wax. gaaruwaale. maa gaaruwaale ba mu neex ma. <laughs> parce que xam nga lu tax. Hmm. critique kenn mënu koo bañ. muy politicien muy journaliste muy keneen ak keneen. bu fekkee ne da nga mi Sénégal moo la bu fekkee ne da nga bëgg waaye buñ la critiqué da ngay nangu. li ngay gaaruwaal li ngay gaaruwaal lan nga lan nga jàpp ni. te am amul teggin may ma déedéet boo ko boo ko boo ko junjee da ngay wax. dama ni dama ni li ngay li ngay gaaruwaal noonu lan nga jàpp ni moo ci moo ci tegginewul wax ma rek. li ma ci jàpp mooy tegginewul mooy yow Babacar Fall Babacar kenn xamewu la wax saaga man bokk lu ma xam Babacar kenn xamewu la xeste Babacar xas nga président Macky Sall keroog ci sa wax Babacar boo xasee président Macky Sall garaawul pour man waaye xam nga li garaaw pour man ma Faye mi ngi ci laaxaale Babacar te nag am nga droit wax nag lu la neex. damay damay laaj lu ciy xas ak lu ciy lu ciy teg néew loolu rek laa bëgg a dégg. li ciy xas mooy bopp au delà de yëpp sax da nga wax nañu sax ñu able ndax nag léegi lépp jeex Babacar loolu du sa cër Babacar loolu du sa wax ndax nag nga nguur. da ngaa dese xam luy métier journaliste. waaye yow moomu nag wax. Ah, d'accord na parce que duma journaliste. voilà mu nga def jàngat am taxaway am gis-gis. d'accord au-delà des faits. d'accord na d'accord ak ah, ma d'accord le commentaire il est libre. mais quand tu es un journaliste aussi y a le droit à l'information qui doit prôner sur ce yow sa bëgg-bëgg ak lo bok yow am nga droit pour di wax léegi mu jeex loolu sa cër li jeex yàlla xam baal est-ce que yow di nga dund ba suba. may fekkee 2024. yow est-ce que di nga fekkee 2024 kon wax ji nañ ko teg ak orma buñ ko tegee foofu la ñuy daal di. ba tey lu fi ñàkk teggin euh, Georges ci bismillah léegi yéen pourquoi mhm. les hommes politiques. suba buñ waxé ci ké waji c'est un héros. buñ waxé ci yeen tay kaay ma un démon. d'accord ci kenn du démon ci man dama ni la violence sur toutes ses formes est à bannir. ak camp bo bok bañu ñëw fi di taal seen ay auto di leen sànni ay xéer j'ai été la première bu taxaw wax du yoon demba bama ma il a été il a été victime de menaces de mort dama ni du yoon.

ku ne am nga droit wax loo xalaat ku ne am na droit ànd ku ko neex ku ne am na droit joxe opinion ci lu nekk waaye nañ ko def daal ak worma ak yar ak teggin yi laa wax. dama ne leen dénk doxal leen ko liggéey laata ngay ñëw ci direction bu bees bi gone yi lañ la dénkoon. waaw nekk nga fa ba jógee yaag ñi la jiitu. fexewu leen ba gënal nekk ni gone yi ci mbedd mi rawatina fexe yow jëlee woo gone yi ci mbedd mi ñu ngi ci quatre heures du matin di yeewu di yori pot bi ba léegi. waaw léegi yow fukki at ak ñaari Macky Sall yi fexewu leen ba gone yi génn ci mbedd mi. waaw da nga ma posé question xam nga da nga def sa commentaire man de boobu mooy xam nga du ma bàyyi mu jàll li ma ci def nag mi ngi noonu li ma ci def mooy yëkkati naa ay xale génne leen ci mbedd yëkkati naa ay xale ba génne leen au delà même du territoire du Sénégal waa may ma waa ma nga noonu nag donc ce qui veut dire que la la la chose elle est beaucoup plus profonde ñu war ko mën a waxtaane comment est-ce qu'on peut faire l'insertion socio-économique des enfants ma am fu ma fekk direction bi am fu ma ko yóbbu te matewul ka ma remplacer dina ko mën a mottali yow mii fii nga toog am na loo xamante ne yaa ngi koy def te boo fi demee da nga keneen day ñëw sa place te li ngay def sax matul yaa ngi nii ma li ngay def matul yaa ngi may joxar bi di ma wax ma lay wax te du noonu dangaa ñëw war ma mën a laaj par rapport ak sama expertise au lieu que tu fasses mon jugement tu es en train de faire mon jugement <laughs> ah mi ngi noonu de Georges yow laay waxal tëjal micro boo amee loo may laaj nga laaj ma waaw euh, yow Georges Déthié ci ci tënk rek euh, ñu ñu kale ci parrainage yi waaw 30 euh, secondes waaw lancé nañ opération doggali Benno waaw man loolu loolu du ma jaaxal te am nañ ci droit nous sommes dans un pays démocratique waaye nag ku nekk da ngay nangu xam nga man lan laa mënul nangu bu élection jotee conseil constitutionnel am ñoo xamante ne wax na leen gañe ngeen ñu nang ko tàccu am yenn département yo xam gagné nañ ko am yenn commune yo xamné ne nangu nañ ko ñu nangul conseil constitutionnel parce que buñ ko nangul won duñu dem di déposer fofu seen ay parrainage ñu jël ay décision ñu taxaw ni non loolu duñ ko nang kooku seen leur avis am nañ ci droit bu ñu mënee doggali Benno Bokk Yaakaar dañu waroon njëkk matal seen ay parrainage Georges le combat politique fii na man xawma kuy contre parrainage waaye man duma ci bokk parce qu'on ne peut pas avoir des partis télécentres nañu waxante dëgg élection dafa cher

ku am leena te amoo jàmm da dem ñun yàlla nañu yàlla may jàmm yàlla nañu yàlla may fekkee te président Macky Sall yàlla na ko yàlla may jàmm ndax ak ndam ndax ndamu président Macky Sall mooy ndamu Sénégal jàmmu président Macky Sall mooy jàmmu Sénégal ndax kenn dënt bëgg Sénégal que moom ndax moom mi nekk si bopp bi war a rendre ay compte et il travaille pour la postérité kon yàlla na yàlla def jàmm ci dëkk bi maa ngi ne nuyu nag Youssou Ndour ndax man fu mu ma fee ñëw bay dem te delloo ma ko njukkal

ñoo attaqué attaqué alors que souvent yàlla dafa nous ñu ci plateau mais am ñu gën a gën ñu xam ëpp ñu xam-xam ëpp ñu yar ëpp ñu teggin ndaxte aduna bi fii yaakaar naa ku ci suñu la tegloon projecteur su boobaa nga un lan nga doon nekkee doomu aadama wala dund ci kaw suuf kon su dafa sutura nit ku nag ku nekk ci politique kenn bañul ko ci ku ci euh, personnage public kenn bañul mais yow toujours démal jël élégance jël nit jël yar ak teggin teg ko ñun Sénégal suñu valeur loolu la ñu signalé je crois que tey wax bii nga xamante ni Babacar Fall wax na ko mooy ce que je dis souvent rek nit ku nekk xamal li ngay wax mais bul xam lañ lay tontu yaakaar naa ni tey bu mu toogee ki nga xamante ni mooy Diégui jóg war na rëccu ay propos yi nga xamante ni yëkkati na ko. Nous doon ay attaques yoo de gratuite la xamuñu buzz moko ko ci dugal xamuñu nag que nous mën def au niveau des partis au pouvoir pour que nous puissions attirer comme certaines personnes la qu'on a fait. souvent suñu nous ñu nous leen wala négocier ak ñoom dañuy jéem attaquer pour que nous puissions leen arrêté mais nous savons que fii nul n'a le monopole de la parole nee pas les bi réseaux sociaux commencé TikTok commencé euh, Facebook live commencé amul kenn ku d'arrêté pour am invitation bu njëkk pour nga invitation da nga doon télévision daal di lay invité léegi yaakaar waay bëgg wax su ko neexee mu téléphone am connexion bu dal dal di teg ay live am jëlale ay message am te je crois que message am fu muy egg sax télévision du fake moo tax ñun journalistes yi dañu war a defaraat suñu toogaay xolaat suñu nekkin xam na ni que askan bi moo fi on n'est pas des super dieux on n'est pas des extraterrestres les lu ñuy wax rek nañ ko teg ci dëgg teg ko ci et quand le président de la république Macky Sall annonce que revue de presse théâtre la yaakaar naa ni képp kuy yeewoo Sénégal xam nga ni professionnalisme manqué na trop ci revue de presse toujours dans votre scandale de ce mardi 16 janvier 2024 sur la chaîne des grands événements VIP People TV Ginnaw bi nga xamanteni ñi ngi won ci dépôt de parrainage fofu foofa conseil constitutionnel am ñen ci ay candidats yi nga xamanteni ñoo ëppoon bruit ñom lañ kon dégg ñi wax manam tel tel bi ci ñom la plateau yi ñom la won révélation yi ñom la won sos yi ñom la won manipulation yi ñom la won ñom ci seen bop sénégalais yi mënuñu leen jox sax lu tollu ci minimum de parrain muy 0,6 di 44 221 parrain ginnaw bi ñu leen recalé nag ñi ngi yor seen làmmiñ ñi taxaw di wax fu nek mais yaakaar naa ni kii di président de la république Macky Sall dafa mel ni daf ko gisoon depuis bobu batay mi ngi don wax nañu déglu ji président Macky Sall naka la danko dànkaafoon ni nga xamanteni tay dañ leen recalé té sen làmmiñ dafa rëy alors que parrainage sax mënuñu ko am ci citoyen sénégalais waxatuma lak nak di dagan batu askan bi pour 17 millions de sénégalais voter leen pour que ñu mëna jité li nga xamanteni moy Sénégal. ba tey ñi ñi nan dañu nak candidat parrainage sax mënuñ ko am te amul benn parrainage buñ fi buñ fi yàqal kenn de parrainage mënuñ ko am parce que c'est pas évident. te parrainage bu bees bi <laughs> foog nga am du treize députés ñun ñoo ko wàññi rek ngir yërmande treize yërmande lañ dawa rek comme gars dañ commencé doon wax ak njëkk kon yaakaar naa ni président de la république Macky Sall tontu woon na leen balaa ñuy egsi ci parrainage bi ndaxte ñi ci gën a rëy làmmiñ tey su ngeen xoolee ñi ci ëpp def bruit ñi ci dàq def révélation ñi ci dàq def takk ay micro ñi ci tàq takk rajo ñi ci dàq jël ay 4 x dugg ci dëkk bi jël seen ay journaliste jël seen ay fenkat teg leen ci plateau yi ñuy yuuxu état bi nangam état bi nangam parrainage ci boppam mu mënuñu ko am te parrainage boobu yaakaar naa ni maanaam présélection la rek pour ñu xool ni ndax yow war nga mën a nekk candidat ndaxte la tànnalee zéro zéro virgule six loo xamante ni soixante la doon laaj ci seen yërmande ak jàppale leen ñu dem ci dialogue bi woo leen ci dialogue ñu bañ dem ba ñu wàññi leen ko ci mooy li ñu leen laajoon bu njëkk sax soixante yi ba ñu wàññi leen ko ci njekk ak teraanga mënuñu ko am tey ñoo takk rajo yi ba ñu leen rakkalee ba pare ñooñu nee nañu ñoom ñooy def seen coalition def seen trio toog fële ku ci mel ni mimi ñàkk diom Touré ki nga xamanteni mom aya père ak pouvoir moko def li bu def ba tay sénégalais ko xam ko lekul ci ndab li mu bëgg ci xëpp suuf ki di Abdourahmane Diouf bi nga xamanteni tay mën na ne say so compté won ci 17 millions de sénégalais lu tollu ci 500000 sénégalais sax xamuñu ko photo soo ko génnoon sax ñi la ki kan la ñooñu ñoo ñëw taxaw tay door buri bu dul jeex nan dañuy def coalition doggali ki nga xamanteni moy coalition Benno Bokk Yaakaar di Amadou Ba bala ngay dogal ni da fay fek nga am doole ak mbolo bo xamanteni mën na la doglo ki nga xamanteni le minimum rek yi munoo ko am ba pare nga bëgg sonal nit ñi nekk fii di tànqal ñi di def buri mooy ni ko olaf Njaay di waxee rek gis nga bari go bu fees du def bruit ay tono vide kese ñoom ñoo fi nekkoon di def bruit yaakaar naa ni ba ñu demee ci parrainage bi loolu feeñal na ko tey kii di Mimi Touré jàllul parrainage kii di Bougane Gueye Dany dañ ko recalé kii di Abdourahmane Diouf kii nga xamante ni mooy Abdoul Mbaye nekkoon fi premier ministre ñoom ñëpp dañ leen recalé ñu ci gënoon ëpp làmmiñ nekk di bruit ñoom la ñu recalé waxatuma dara ñeneen tey dañuy taxaw buntu conseil constitutionnel dugale ay recours woo seen yenn taskatu xibaar teg leen ci buntu bi déclaration importante Sénégal du ay déclaration du ci ay wax ci ay jëf lañ koy def rek kon moo tax képp koo xamante yaa ngi dagaan baatu askan bi crois que d'agen ngeen ni que Sénégal c'est une république c'est des institutions c'est une nation bo xamante dafa am ay fondement yu ko lié dafa am xam-xam moko yor waye su doon wax mbelelele ak manipulation ak fen suba goudé ak invention révélation Vous diex melni ni ay jéeg yo xamante ñing ci diggu marché bi di je crois que le Sénégal n'a pas besoin de ces genres de dirigeants en tout cas le président Macky Sall les avait très bien avertis et je crois que li mu doon wax démb mom mo feeñ tay motax souvent ñu ne tout le monde magum xamoon naa ko moo gën magum waxoon naa ko en tout cas mooy ñi nga xamante ne recalé nañ leen ci parrainage yi tey jii ñi ngi foofu di jaabante foofu ci conseil constitutionnel naan dañuy dugali ay recours ak yu kenn xamul tardeel seen bopp la ak perte seen temps waxatuma la nag ñoom ñett ñooñu seen trio bi nee nañu dañuy clamé ji li nga xamante ni mooy état du Sénégal foofu ca Union européenne xam nga complexe ak ñàkk gëm sa bopp weesuwul nga dëkk Sénégal am carte d'identité Sénégal yor nationalité sénégalaise tay nga am sa constitution am sa loi am sa élection union européenne am sen ay loi am sen règlement yow nga tok tay ce conseil constitutionnel n'est là sa parrainage baxul nga pas da ngay dem clamé ci union européenne union européenne lan la mën ci Sénégal lu ci yonam ci suñu réew je crois que tay yéen yi nga souvent un plateau lan ngeen don tok di accuser état du Sénégal dafa complexe touba bi jox na une licence de pêche suñuy ressources ñoom ñoo ko pillé ñoom ñoo ko jël yéen su ngeen jàqee tuuti ngeen dem jàkka làqutu ji ci ñoom est-ce que tey mën nga bëgg la pour ba pare suba nga bañ la contraire donc il faut que sénégalais yeewaat xam ne que opposition bi maanaam gëmuñu seen bopp ce sont des complexes li ñu leen di wax suba ngoon jëmale ko ci nasaraan yi jëmee ko ci union européenne ay fen yu tooy xeb la parce que tey su ñëwee ba seen parrainage jàllul union européenne mën ñëw fii ne conseil constitutionnel jàllalal parrainage yu Mimi Touré wala Bougane Gueye Dany wala Abdourahmane Diouf da ngeen amul temps amu lu ngeen def amu leen programme moo tax ngeen di divertir seen bopp pour wàññi seen stress moo tax ngeen di naan union européenne waxuma leen union européenne de da ngeen di jëm jële ji ONU jël Nations Unies jël CEDEAO ak union européenne yëpp ngeen boole leen ngeen ne leen seen parrainage dañ ko recalé ngeen xool ndax mën nañu dara ci Sénégal nous on est des Sénégalais on est fiers d'être des

war njëkk gëm say institution lan nga war a njëkk gëm sa constitution waaye gëm gëm sa bopp pare nga ne damay dem kalaame ji union européenne dem leen nations unies su ngeen jógee nations unies ngeen dem ONU su ngeen jógee ONU ngeen jàll CEDEAO su ngeen jàll CEDEAO ngeen jàll union Europe africaine su ngeen fa jógee ngeen soog a dem union européenne ngeen foog ndax mën nañu delluwaat seen candidat dem leen wuti programme wuti solution ba sénégalais yi dugal leen seen xol yéen xam ngeen ni sénégalais yi

li ma ko waaj ji yónnee man bi ma yónnee image yi man wax dëgg yàlla sama yaram dafa daw waaw parce que lii daa doy waar wax dëgg yàlla maa ngi koy soog a gis ci histoire politique bu Sénégal. ma xam nga sama yaram tey fan la doy bi ne waa kaso bu Mbour kaso bi nekk Mbour dajale nañ cent mille def seen participation man affaire boobu man daal man daal yëf daal suñ bi yëf yi nii ah, man yëf yaa ngi may jaaxal na ma de sëñ Abdoulaye barke sëñ Tuubaa yëf yi fu mu toll nii na ma trop trop bu demee ba waa kaso ba ñu waree na jox dimbal waa kaso bu mbuur dajale cent mille te wóor na ma ni bala balaa semaine bee jeex moom ni ko kaso mbuur defee noonu la ko kaso yëpp di defee ci yàlla man sama daal ban waa kaso bu mbuur moom dajale nañ cent mille moom vraiment daal sama xol tooy na torom nag wax billaahi kon yaakaar naa ni ñoo seetaanandoo vidéo boobu ñoo seetaanandoo commentaire bi nga xamante ne c'est un citoyen lambda sénégalais moom ci boppam moo def remarque bi soo demee ba nga ne da def levée de fonds yaakaar naa ni waroon nañu ruus jël ay paan wala ay këll di wër si mbedd bi di yalwaan ndaxte am na yoo xamante ni tey soo koy xeex lan nga war a njëkk a dàq maanaam mooy majaal di yalwaan li nga xamante ni tey nga naan lii ngay defee levée de fonds uniquement lan ndax askanu Sénégal tu es si saine conscience alors que ay yëf la yo xamanteni ay yefu la donc c'est des choses yo xamanteni ne les Sénégalais matures les Sénégalais réfléchis dañ ci wara a bàyyiwaat xel ñom de war la même suñu noppee raflé les chaque jour foog ñu que di créer ay mbir uniquement pour pouvoir exister alors que je crois que pour pouvoir exister il faut avoir quelque chose à mettre sur la table mais sans argument amulo ben réflexion boy teg amo ben solution amo ben probabilité boy problématique lenn rek mo la entre mo la entouré euh, moi, la méchanceté gratuite lenn moi, la Antoine, moi, ben haine de moi, la moi, moy ben aigri Madial pour lan à quoi ça sert Vous n'avez pas de candidat, vous n'allez pas participer à des élections, votre parti a essayé dessous, le Sénégal ne veut pas de vous, car de pour déstabiliser le Sénégal, vous étiez venu pour semer le chaos, vous étiez là uniquement pour ne pas respecter nos institutions. Fallait ou l'un président de la République, fallait ou institution. fallait ou justice. Et aujourd'hui, vous voulez, vous voulez que nous jugions euh, et aujourd'hui ngeen bëgg ñu lan diriger comment vous pouvez nous diriger alors que vous ne croyez pas à des institutions yi nga xamante ne ak ci biir su ngeen ñu waroon diriger institutions yooyu ngeen fiy fekk institutions yooyu ngeen di waatee en tout cas muy li nga xamante ni daal defoon nañ ko ci seen levée de fonds bi fu mu mujj ci ay màjjal yoo xamante ni ay fen yu tooy xeb lañ ci teg naa neen dajal nañ lu toll ci 450 millions lépp xanaa ci màjjal lañ ko jëlee toujours dans votre scandale de ce mardi 6 janvier 2024 suñu jógee foofu dama bëgg ñu seetaani benn vidéo ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko ginnaaw bi nga xamante ni y a certains journalistes et chroniqueurs et opposants taxaw nañ ci plateau yi nee nañu justice dafa décider pour que ñu réintégrer Ousmane Sonko ci liste électorale yi alors que état respecté wul li nga xamante moy décision de justice souvent damay dégg ci plateau yi ñu pourquoi l'administration ne respecte pas les décisions de justice alors que Macky Sall bi muy def discours le 3 juillet né bokul ci candidature dafa néwon dina def carte nam ba nga toutes les décisions de justice seront appliquées à la lettre pourquoi Macky Sall déroger à cette règle raison pour laquelle nak ma jox administration du Sénégal sax lay wax du né Macky Sall lu tax ñu déroger ci règle li nga xamanteni moy décision de justice bi toog ci ndodd Ousmane Sonko pour qu'on y appliquer ko nañu déglu ñu vidéo bi dellu si fi nek na len ragal len yalla parce que xamu leen ko sen yon newu ci Waye comme nak da ngeen di jay ni so waxe ñu né force restera à la loi la loi est la loi du peuple que vous êtes donc force restera au peuple sénégalais. man de naa leen wax man Ousmane Sonko dama décidé xeex lu xeex bi laaj rek dinaa ko def nu mu laaj dinaa ko def xam ngeen président xalifa Sall bi mu tollee yi ma tolloon dafa bëggoon a won sénégalais ni moom homme d'état la bëggoon sénégalais ni membre républicain la bëggoon sénégalais ni membre dafa gëm institution yi ñu taxañ ko justice jaay ko doole ñu tere ko mu nekk candidat moi, tax ma man institution Macky Sall ou ma république Macky Sall faalewu ou justice Macky Sall faalewu ou parce que nous parce que nous sommes hors la loi dans ce pays. Nous sommes hors la loi. Nous sommes la loi, les institutions, la République, mettre au service d'un parti politique, d'une famille et d'une personne. Nous farata la ñu ñooñu ak nous. les hypocrites yi toog fële naa nitu fitna lañ j'assume man je l'assume je ba fu mu yem ndax ku fi seetaan gis nga ku fi seetaan ba ñu def la li lay def ba pare ñi ñëw ñëw di la jaay ay naan ñoom ñooy les républicains ak di la jox conseil fi ñu toog la ñuy toog naan ndeysaan prison sax la fa seet si mbokk yi on s'est beaucoup battu pour un projet Ce projet bon pour sauver le Sénégal ay at juróom-ñeenti at ñuy xeex joxuñu nit xaalis sàccuñu xaalisu réew mi joxe ko digguñu nit ñi lu dañoo bokk ak ay xalaat ci a defar mi fi ak sati fi notel gi nga ne Sénégal dog jag mbuumu jaam gi delloo si alalu réew mi ci réew mi séddale ko ci séddale séddale bu maandu lii lenn la ci suñu projet bi ñu boole ñun ñëpp ñu koy xeex biñ koy door matuñu woon fukki nit di waxtaan ak sénégalais yi ngeen koy gëm ba tey mu yegg si fii nga xam ne ñun ñëpp xam nañ ne bu ñu demee 2024 gannaaw yàlla kenn mënuñu tere jël réew mi. makisal makisal ak quelques magistrats ne ñoom ñoo am fitu li askanu li ëpp li ëpp ci askanu senegal la ñu bëgg ñoom dinañ ko tere. moo tax ma ne leen Macky Sall mu toll nii ci ñett la yaakaar. mi yaakaar ci ay milices jël ay nit ñun ñan ministres yi xam nañ fi kon ni ñoo vidéo bi dégg kàddu yi nga di Ousmane Sonko ko bu leen fekk ñi ragal def devant une jeunesse inconsciente ñëpp waroon ne nee na Ousmane Sonko faalewul Massamba, Samba Mademba ma bu mu décider dina ko def nee suñu jógee ñina force restera la loi la loi c'est la loi du peuple donc c'est le peuple qui est la loi nee na moom Macky Sall faalewul institution Macky Sall faalewul justice Macky Sall Ousmane Sonko mo wax ñett yooyu comme Ousmane Sonko faalewul justice Macky Sall faalewul institution yi faalewul administration bi est-ce que tay administration bi warna na Ousmane Sonko c'est une question que je vous pose Olaf Ndiaye ku yëkëti sa loxo droite nga ne ma Samba ma ma Demba sa loxo gauche nga ne ken comme état bi dafa ne justice institution administration kon justice décision bëgg administration respecter justice diw mi fi nangam sangam su comme Badara ko dañ doon bi arbitre ñu bañ ñu ci mais nu golo xam kon donc bu vous voulez ci plateau yi di manipuler nit ñi di sonnal nit ñi ak Ousmane Sonko ne mérite aucun respect aucun traitement par rapport à l'institution. ay parce que pour nga mériter un traitement da ngay pour nga réclamer say droit da ngay def say Ousmane Sonko n'a jamais accompli ses devoirs de citoyenneté Comment un Sénégalais qui n'a jamais accompli ses devoirs de citoyenneté peut aspirer à digérer des citoyens sénégalais man de bokkuma de ku ñàkk fulla pas fayda de amolo loo rus amoo RS nga bëgg Ousmane Sonko def ko sa yalla ak sa yonent bi man de sax ko kay ndax qui képp ku fonkul Sénégal fonko samay administration fonko institution fonko président de la République bi nga il a été élu au suffrage universel direct par la majorité des Sénégalais qui ont voté te joxoo ko cër joxoo respect nawloowu ma la du ma la jox cër du la jox respect donc man je considère Ousmane Sonko et je le multiplie par zéro il n'est rien et il ne sera rien devant moi képp ku mu mën a doon ci yow nag yow la engagé mais moi il ne sera rien du tout pour moi et je demanderai que sama benn institution sama benn administration sama benn justice bu mu respecter benn àqam ak yelleefam pour respecter àq ak yelleefu doomu aadama dafay fekk doomu aadama boobu xam luy àqam ak yelleefam nit koo xamante nag bàyyi ma la ab xar la ab mbaam la moko moko gën ci kër ndaxte xamadi ak reewande weesuwul loolu ndaxte su amoon xel di xalaat war na xam ne que tey fii ma taxaw di wax ay institution ak administration ñoom ñoo ma permettre ba ma jàng ba am diplôme am lijaasa ba mën a inspecteur des impôts de même ci 17 millions de sénégalais alors que am na ñu ma ëpp xam-xam te nekkuñu ko kon kooku su delloowul naar ja xoromam donc naar we bu mu ko fay xoromam kon donc je crois que les gens qui demandent que pourquoi l'administration n'a pas respecté la décision de justice par rapport à Ousmane Sonko moi je salue cette décision de l'administration de ne pas considérer Ousmane Sonko comme un être humain en tout cas tontu que indil nañ ko Ousmane Sonko tontu du forox ay donc je crois qu'il ne mérite que ça. toujours dans votre scandale de ce mardi 6 janvier 2024 sur VIP People TV la chaîne des grands événements ginnaaw bi nga site de du compte YouTube Allo Sénégal amoon na ay diffamation yu ñu ko teg ko ci kaw ki nga xamanteni le ministre du tourisme Mambay Mbaye Niang ak soxnam soosu ginnaw bi ñu ne dafa ëmbaloon ki nga xamanteni moy mooy rakku soxnam Mambay Mbaye Niang daal di len porter plainte pour diffamation ñi jël len tek len sous mandat de dépôt amna ay propos yi nga xamanteni ni seen ay natango ci plateau bi yëkëti nañ ko maanaam ginni ginnaaw bi ñuy retirer seen ay propos retirer seen mot ñi ngi présenter waat seen excuse ki nga xamanteni moy Mambay Mame Niang

dañ koy jàllale ñun mënuñu koo téye dañ koy mm-hmm. jàllale wan ko public bi mm-hmm. parce que loolu la ñuy xaar si ñun mm-hmm. travail wala nit ki leneen ak leneen yi nga xamante ni mën na koo def bari na mais je pense bien su fekkee nit ki dafa opté daal di nekk journaliste kon moom euh, maanaam lépp lu nga xamante ni information la ak ci lu ci muntu doon rek euh, da koy daal di chercher pour partager ko ak ñi nga xamante ni nii moom moo di public bi de sa fait nañuy comprendre xam ne wax c'est pas facile euh, metti na et ba tax na ci kaw wax boobu tamit rek ci nga mën tooñee ki nga xamante ni euh, yaakaar naa ni ñoo déggandoo kàddu yi nga xamante ni présentatrice bi yëkkati na ko nee na ci kaw kàddu yi nga xamante ni ñoom la ñu juum ay nit kese lañu dañ koy demander pardon parce que ay nit kese lañu nit ku dul juum amul yàlla suñu borom dañ koy toon sax jéggalu ñu jéggal ñu ñu baal ko waaye yàlla du nit yàlla am na xol bu mu mën a baalee

wala sa nangam daa sarakou saraku nangam je crois que information bobu du ngeen ko jallale pour vous dire vrai qu'on kon du ngeen def sen njombe uniquement pour détruire benn nit wala yak nit ba d'elle soit née on retire nos propos on présente nos excuses d'accord nañu def ngeen li ngeen xamante tayef tayeef ngeen ko defé Mame Mbaye Niang kese mom moom parce que yalla néna tooñ leen ma jiggal ma ma baal leen mais tooñ bi ngeen tooñ seen digganteeg doomu aadama moom rek a leen ko mën a baal kon yàlla mi leen wax loolu am na fu mu ko teg tey soo toxee ne ay journaliste lañu information bu ñu am dañ koy jàllale non du noonu journaliste waxu la loolu de éthique ak déontologie waxu la loolu la formation waxu la loolu waxu la information bu ñëw ci yow rek nga jàllale ko information su ñëwee ci yow da nga koy segg seggaat ko. gëstu ji ko ndax information bi firndeel na wala firndewul nga xool li ci firndeel nga soog ko jàllale su doon information bu ñëw nga jàllale ko nit fu ko neex lay toog inventé sos di yónnee la nga jàllale ko su boobaa yaa ngi ci erreur kon balaa ngay wax aussi da ngay comprendre bu baax lan ngay wax nee nañu journaliste ñaar la dem wuti ji information gëstu ko saytu ko am ci ay preuve am ci source daal di koy teg wala ñu indil la information nga vérifié ji moo tax ñu la thèse ak synthèse pour nga am antithèse. waaye information du ñu la ko ne jàllax rek nga ne ko jàllax askan bi askan bi laaju ñu la loolu dañuy laaj nga informer leen juste et vrai maanaam jëlal xibaar bi xibaar bii nga yor yow si sa bopp lan moo ci sa part de responsabilité maanaam nga dem gëstu ji ko nee naa leen bërki démb journaliste amatul ndaxte ñoom ñëpp lan la ñuy wax Sonko wax na lii Bougane wax na lii Mimi wax na lii Biram wax na lii Basiru wax na lii Guy wax na lii léegi yow journaliste bi lan nga wax teguñu la fa pour nga répété waat ay waxu jaamoon ndaxte bañ koy wax askan bi dégg nañ ko ndaxte ci micro lañ ko waxee yow journaliste bi nag dañ la wax sorol mooy lan mooy nga dem xooli ji ñoom la ñu wax lan moo ciy dëgg ak lan moo ci dul dëgg lan moo ci yenu maanaa ak lan moo ci yanul maanaa nga ne diw kat ba mu waxee lii man gëstu ji naa ko fa mu ko waxee nangam nekkate lii ak lii la nii ak nii la demee nga ne askan bi information baa ngi nii nga bàyyi le peuple jugé. mais c'est pas information bu ñëw rek nga jox ko askan bi parce que doon chaque jour ñu jot information mais manipulation mi ngi ci biir information mensonge mi ngi ci biir information dénigrement mi ngi ci biir information yow journaliste bi lan mooy sa rôle maanaam nga xool ni que lii dénigrement la nga ne ah kii kat information mu joxee day dénigrer waaye man ba ma xoolee ci suuf ba lii du dëgg lii mooy dëgg donc lolou lañuy xaar ci journaliste en tout cas muy li nga xamanteni def ngeen ko mambay ñam mom lay neex mu bal leen bu leen mékkale Mame Mbaye Niang yalla yàlla mën na balé mais mambay ñam su ko neexee mën na baña balé ce qui apprend que la prochaine fois avant de parler quelque chose dank war dem gëstu ji vérifier ji ko ndax ndaxte yow mamu tok fofu tay ku togo ne sa jëkkeur da ëmbal saraku sarak bu jigen ba sa mag bu jigen ñu jox la information bi do tok ci plateau bi nga ne sama jëkkeur da ëmbal sama rakk wala sama mag doo ko wax kon donc il faut que ngeen di xalaatee noonu donc bu leen def sen djeyé paré taxaw bëgg jouer sur la conscience des sénégalais gis nga Sénégal pour qu'on y régler que il faut que sanction commencé am parce que y' a trop de laisser aller y' a trop de lo xamante ya ma neex ma tay dama koy def dara duma ci fekk suma ma suba ma dal di jéggalu ñu jallam ba ngeen di wax lolu est ce que ñaata millions de sénégalais ñoko dégg est ce que ñu dëgg la est ce que ba ngeen di jéggalu ñoñu déggoon ko déggat nañ ko est ce que mën ngeen jaarat ci ñu mu tokkon sen nopp yëpp ngeen dem fa nga li ñu waxoon dañoo joom donc je crois que quand vous demandez pardon donc donc da ngeen di demander mais c'est pas obligatoire ku ñu pardonné wala ñu ñàkk leen pardonné mais nag lii roolu julli rek ku la tooñ su dee am nga xol boo ko mën a jéggalee nga jéggal ko su la leeree ne amoo xol boo ko mën a jéggalee tamit nga yóbbu ko ci yoon rek keroog yow mal xiyaam yàlla mooy àtte en tout cas muy propos yi nga xamante ni waa Allo Dakar yëkkati woon nañ ko teg ko ci Mambay Niang ñoom ñi ngi retiré seen ay propos daal di présenter seen ay excuses nañ dem seetaan vidéo bi man je ma dis que Ousmane Sonko bu muy dem def vidéo bi Ousmane sonk boobu moo nekkoon nit Ousmane sonk boobu moo doon réfléchir avant de parler. violence baa ngi ci mbedd yi mi ngi ci politique bi mi ngi ci terrain football yi mu ngi ci làmb gi événement religieux yi sax léegi violence ci am loolu nag ñun ñëpp la interpellé interpellé na citoyen lambda bi. interpellé na parents yi nañu yar xale yi te téye leen waaye ñi mu gën a interpellé tey ci ci sama gis-gis mooy ndaw ñi jeunes yi dañoo war a xam ni askan wi xaarewul lii ci ñoom jeune bu yaakaar ni toll nga foo mënee ak foo amee doole demal bay demal gori demal def loo xam ne mën ngaa jàppale say njaboot say say waajur parce que sonn nañ ci yow demal def loo xam ne mën naa jëriñ sa askan moo gën nga ay nit di la ji utiliser ay politiciens su dee violence politique yoo xam ne seen i doom ña nga Canada ña nga États-Unis ña nga feneen wala suñ ñi su dee ñibbisi nañ ñu ngi ci ay grande société di liggéey di leen pousse ñoom ñuy dem di reyante loolu dafa jot nit ñi xib. ñoo ko déggandoo ñoo ko seetaanandoo comme ni ma ko waxee sànq rek Ousmane Sonko. c'était c'était ce Ousmane Sonko peut-être moom le Sénégalais yi c'était ce Ousmane Sonko dont le euh, dont la jeunesse avait besoin mais pas un Ousmane Sonko qui ment pas un Ousmane Sonko boo xamante ne du leen wax dëgg koo xam ne da leen di manipuler koo xam ne day sos lépp lu wax tegu ko fenn Ousmane Sonko boobu yaakaar naa ko Ousmane Sonko bii lañ soxla woon ndax nee naa man bokuna si ñu bëggoon Ousmane Sonko. mu war a ñëw Vélingara suñu dëkk de vingt heures à deux heures du matin ñu ngi woon ci tali yi di ko xaar kooku koo buggut doo ko ko defal nga war a jàngi le lendemain donc Ousmane Sonko tey yu bëri engouement bi ñu jëloon force bi ñu jëloon mbëggeel bi ñu jëloon ne dañuy ànd ak Ousmane Sonko dañoo dem ba ci biir daal di wàññeeku ndànk parce que gisuñu dëkk parce qu'il faut faire la logique des choses il faut dar buñ ko waxé parce que nak Sénégal da ngay indi deug bi ne leen mu ngi ni ñu Saga, sa nday. Saga la saga yu amul fenn Tarété la de toutes les noms te fekk yow deug nga leen indi li Yalla bëgg santané. mais bëgguñu ko Ousmane Sonko bi lañ soxla woon on Ousmane Sonko qui allait faire la différence politiciens yi fi jaar yépp moom mu ñëw defar ñu différence parce que il est très jeune tey bu fal won dañuy le plus jeune président ci ñu jot jité mais malheureusement il a bien débuté et mal fini ni mu jéxalé moy loolu ci ka ci walu politique lay wax parce que jéxalu lan il vit té dañ koy ñaanal guddu fan ak wër yalla génné ko fu mu nekk mu nekkaat benen Sonko bo xamantene jeunesse bi mom lañuy soxla mais pas Ousmane Sonko.

ñëpp a ngi doxi seen soxla Dame Boye defal sa bopp nii xam nga li Sénégal li moo tax mu métti da ngay nekk di wax lu la neex di wax loo xam ne ay bêtises kese kese kese loo xam mën na yëngal réew bu ñu la jàppee ñun dañ koo xeex buñ ko jàppee ñun dañ koo tooñ kii bêtises yi muy wax bu fekkoon beneen réew la ko doon waxee kon léegi waxatuñu ay mbiram mu toog naan ay Sénégal mën naa tàkk wallahi yàlla na tàkk ba jeex tàkk waaye du Sénégal gi yéen a ngeen di fontu rek daam demal nga liggéey bàyyi caaxaan gi nga nekkee man dama dem ba sa yaakaar xanaa kii gis la li muy wax yëpp Sénégal fii dara du fi tàkk yéen nga yow da ngay boo xamee dàmbuj lu mu doon nga wax ma ñoo ko déggandoo seetaanandoo su ma ne soxna si yow mi nekk ci vidéo bi boo xamee dàmbuj lu muy def nga wax ma parce que dàmbuj kenn xamul juriste la kenn xamul juge la dàmbuj kenn xamul lu mu doon dàmbuj daal takk na micro yi rajo yi di wax rek. ba pare ñu ne Sénégal démocratie amu fii ba tax bu ñu ko jàppee ñu naan jàpp nañ ko jaay nañ ko doolee du ñu fàttaliku lan la daan wax ci plateau yi Dambou chaque jour mu wax bêtise Dambou chaque jour mu wax bêtise chaque jour mu wax li nga xamante ne war nañ ko koo toppee yoon mais dañ koy seetaan parce que man je me dis que xëy na sama xalaat bi ma am la plupart des sénégalais moom la ñu am ci Dambou mooy que nekkatul enseignant comédien la te maison de production yi boo leen soxlaa comédien mu ngi noonu jël leen Dambou man dama yërëm élèves yi muy jàngal Dambou kañ lay programmer programme am kañ lay defar. leçon yi muy jàngal kañ man dàmbuj moom man dàmbuj ay mbiram dama cee sawarul ma wax leen dëgg tey dàmbuj ay mbiram sawaruma ci. parce que dàmbuj bu mu dalee wax ba léegi lan la réussir lan lan la gagné lan la réussir ci lu muy wax dàmbuj barki démb la dem élection huit personnes huit nii. mu nekk huitième ndaare kenn votelu ko. trente cinq virgule zéro virgule trente cinq la am ci vote ci huit candidats. ci représentant syndicat enseignant mënu ci gagné nekul premier nekul deuxième nekul troisième quatrième sa nekk ko huitième la nek ndare damboj kon sa wax yi la njëriñ damboj mbooj lan la daa yaakaar naa ci cinéma sénégalais la bëgg bëgg a bokk ci suñu cinéma gi da ci bëgg a dugg parce que il fait que des comédies man waxu daa duma te dóor sama dom waxu daa duma ni ma na dégg naa dàmbooj nee na ko ci àdduna ay waxu dàmbooj dama dama ko dama ma maanaam euh, yëgu bu ko su ma ko doon dégg sax du ma ko dégg damay fàtt samay nopp ndax bêtise rek lay wax bêtise rek te man li muy wax te dafa yàgg wax nag sonk moom it sonk bi mu ngi fëlee ba léegi mu ngi wax et je me demande lan la gagné. ba tey ci seen scandale di jour. de ce mercredi 17 janvier fii ci VIP People nee naa leen démocratie Sénégal dafa am te il faut ñu koy nangu parce que chaque jour nit toog ci télé waxal président lu ko neex wax au nom des Sénégalais mais wax au nom des Sénégalais boo xamante ne yóndiwuñ la yow li ne li la neex ngay wax mais kenn yóndiwu la Pa Assane dama bëgg ñu seetaani vidéo bi nga xamante ne moom moo wax. boo nom dee sénégalais bu fekkee da ngeen ciy ànd dinañ ci xam dara nañ dem seetaan vidéo bi ñëwaat. xam nga ñoo wax président wax la ko nga xam ko xaw ma sa service wax nañ la comme déet sénégalais yi ci ëpp nee nañu da ngaa yàlla dëgg la bëgg boo xam ne dafa bokk ci civilité ak civilisation dafa bokk ci humanité ca humanité googu nag Sénégal bi ci ëpp dañu ne président yow sa nguur amul humanité. pour président bi comprendre réellement bu day ànd noo président nga baal rek mais yalla deug la bëgg té yalla nu la gëna ma ma mélé ci benn té ku soxor soxor bi on dirait que dafa baax té ñi nga xamné dañu koy jël ci faare ko ay saga nday yu toy xép bu ñooñee da leen ni bal photo ak ñom ñi nga xamné kat dañ koy jox xalaat né ko ni ngay doxalé baaxul kay ñu taxu waxtané réew mi ñooñu lay bu ndoxataan quelle pertinence mais en fait ce n'est pas de la pertinence couler c'est de l'adresse tu sais pourquoi c'est Yakarna ñoko ñoo ñoko sétanando ci biir vidéo bi amna na ko tontu ci sasi ndax nak néna len Sénégal fu mu nekk nii koo xamal pot mu ngi ak sa paan yow président Macky Sall dafa soxor d'accord né nga sénégalais nénañ la plupart des sénégalais nénañ président Macky Sall dafa soxor wa président Macky Sall ñaata nit ñoo fi saga mo xey melni du mom ànd ak ñoom président Macky Sall man je me dis que amna acte bo xamantene ne la ko defoon mu neex ma te xam naa su ma les 40 morts yi amone Kafrine la nuit du 7 janvier 2023 il y amna un an ci janvier bi ci 7 janvier bi bi amone 6 kilos Kafrine les 40 morts dont un de mes parents en faisait partie président Macky Sall dafa yëg mbir mi tag moo fa jiitu sapeur moo fa jiitu police daf ko yëg tag dem décréter trois jours de deuil président Macky Sall nga ne du nit dafa soxor ñaata dunit, ñoo ko fi saaga mu indiwaat leen taf leen waxtaan ak ñoom président du nit dafa bon dafa nangu dialogue biñ ko proposer ku nekk wax xalaatam. moom ngeen di naan dictateur dafa nangu dialogue bi ku nekk wax ñu xool liy arrangé ñëpp ñu def ko ba ci parrainage yi ba ci wàññi biñ ko wàññi bu nee nag président dafa bon nangul nañ ko ko ndax xalaatam la te nous on est vif d'esprit ba dañuy nangul nit xalaatam mu nekk xalaat bu baax mu nekk xalaat bu bon dañ lay nangul sa xalaat mais man gisuma rek li tax président Macky Sall ñu naan ko dafa soxor ci wàllum humanisme gisuma ko sama gis-gis nag laa wax ku gis nag mën nga wax li tax nga ne président Macky Sall amul xolu yërmande bu fekkee nag Ousmane Sonko moo tax ngeen di wax ay naa fekk ngeen ku ne Ousmane ci Ousmane Sonko ngay basé wu pour wax ni président Macky Sall amul xolu yërmande waaye Ousmane Sonko dafa ku ko lu tax ñu koy yërëm. Ousmane Sonko nit la Ousmane Sonko gënal ñu prison donte yéene wuñ ko ko mais il est qui? ñaata nit lañ fi tëj ci ci loo injuste par erreur ñu des années et des années nga def ba ñëpp xam def waa ñu tëj la lu ñu lay pourquoi yërmande bi pour lan tey président Macky Sall buy yërëm Ousmane ko ci nan la ko yërëmee nga yërëm koo xamante ne dafa ne nañ la génnee dàggate la dàggate la ni suppu kànje ni ni ni ni suppame ñu dàgg la nii mais ni koy dàgg carotte yéen ak Sénégal gi ñu nekk man mii je parle en tant que jigéen exemple lay jox ku ma def tuuti dan lay wax doo ko defati danaa ko defantak yow ba mu saf waaye léegi ngeen bëgg ku ma yéene dee ku la yéene ñu euh, délogé la pale ku la yéene euh, euh, musiba ku la yéene ñu ñu ñu coup d'état la waaye yéen kooku loo koy yërëmee en tant que nit ak nit la ñuy wax kooku loo koy yërëmee président Macky Sall tey bu yërëmul Ousmane Sonko am na ci plein droit parce que nit la donte sol na mbubu président mais bu ko simbee nit la. te dafa am ay sentiment am xolam mu nekk nag ku am xol bu yaatu ko mën a muñ ndax nee naa leen jiite sénégalais dafa métti sénégalais dag na lammiñ ñeme na tuuma ragaluñu yàlla donte ñu ngi koy jaamu ragaluñ ko wóoluwuñ ko ragaluñu yàlla wóoluwuñu yàlla suñu borom te du ñu nangu ndogalu yàlla bu ñu nangoo ndogal rek day fekk mu arranger sénégalais. sénégalais bu demee ba ne yàllaa ko dogal rek dafa fekk mu arrangé ko tànk sànn ça l'arrange pas c'est la personne c'est limé day fàtte le destin kuy xaar président Macky Sall yërëm Ousmane Sonko yaa ngi nax sa bopp parce que man mënuma toog Ousmane Sonko naan président Macky Sall dañ ko war a génnee pale def ko ni Samuel Doe te ñëpp xam ni ñu def Samuel do ñi xamul dem leen tappe ji ngeen xool ni ñu ko def kooku ku la yéene loolu boo amee ci moom xool yërmande ma am ma xam ne kon ci saxaaba yonent yi nga bokk parce que on est dans dans un monde de rancune yi koo def benn bu la fayu léegi mu ngi la koy dencal tôt ou tard dina la ko fay waxuma la nag ku nekk publiquement déclaré la des choses yoo xamante ne traité la de toutes les noms sàcc lu ne mu wax la ko naan bu fekkee ni Pa Assane Ousmane Sonko moo tax ngay naan président Macky Sall amul xolu yërmande am na ci droit te bu dul woon moom ak keneen ku mu munte doon muy man muy yéen ñii di seetaan ku Ousmane Sonko def lu mu def président Macky Sall ku Ousmane Sonko wax lu mu wax président Macky Sall ku Ousmane ku ku ku am yéene bu yé bu bu raw Ousmane Sonko bi mu am ci président Macky Sall kooku bu fekkee nit nga te ñun ñëpp ay nit lañ ma xam koy Sénégal doo am ci moom yërmande mënta ne Ousmane Sonko limu mu def président Macky Sall keneen ku ñu ko defoon ci ki la ko def doo am ci moom yërmande xamante nañ on est des sénégalais <laughs> ay xale lañ mais xam nañ li xew si dëkk bi donc Ousmane Sonko président Macky Sall la guerre c'est la guerre bu fekkee loolu la woote dafa dafa ne woon gasta gasta donc vous attendez ak waa président Macky Sall yërëm Ousmane Sonko mi ko naroon reylu mu ko naroon euh, euh, waajal coup d'état mi ko waroon génnee palais ba diri loo xam ne mosuñu ko def benn président mu naroon ko mu yéene woon ko gàcce boobu devant toute l'Afrique devant tout le monde entier nga ne président Macky Sall naam yërëm ci pré ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko mooy kan <laughs> arrêté président Macky Sall nit la comme Sonko comme man comme yow mi may seetaan naa fekk yi toog ci plateau yi naan Ousmane Sonko président Macky Sall du nit amul xolu yërmande dafa bon. ah yàlla baax na. seen scandale du jour. kii de kilifa moom nag moom it dafa lëmbe palaato yi di wax lu ko neex di sos xam nga nee naa leen chaque fois moo bi day ñëwaat ci samay wax mooy que démocratie dafa am Sénégal parce que weesuwul yow ñaari nit ñu tëju ci néeg waxtaan yow mi nga xam ne tinoo fekkeewoo yow nga gën a xam ñaari ñi tëju woon ci néeg bi li ni xew ci néeg bi sénégalais moo dëgër fit weesuwut ñi dëgg ñi gën a dëgër fit nag mooy ñiy tokki palaato yi am nañ fit li Barthélemy Diaz wax moytul ma na fekk bu am bat ñemé nañ te rusuñoo fen nañ dem déglu vidéo bi ñëwaat. il va pas me contredire. Ah, bi mu dem rencontrer Macky Macky daf koné ce qu'on doit faire c'est de neutraliser Ousmane. mais man il va pas me contredire ci télé laay waxee. est-ce que non je ne sais pas en d'Ardaf qu'on est waouh. Si vous voulez que c'est un candidat d'Al, mais neutraliser Ousmane. Ndar vous Ousmane Boké, je vais vous dire une chose. 8h bon ou bé bureau, 8h30, vous faut que vous gardez tes tes tes tout tonto Il y a 8 bon Boké, Ousmane 9h 30 vous faut que man maa leen wax lii tey. kii na ma pas ah, mais attends attends attends mais yenn fen yi garaaw naa mais àdduna kenn mënul comprendre quoi ay temps dañ daan dóor xale yi naa leen bàyyi leen fen mais jot na nag ñuy commencé di dóor mag ñi naan leen bàyyi leen fen parce que les soi-disant activist la du ñëpp nag mais surtout kii du ma la wax de lu ma la ko woowee mooy ku ni fàng kii. nga xamanteni ni neena moy kilifa kër gi soy kilifa buy fen du rus li est-ce sa njabot di ka setan di wax di xalaat ni li ngay wax ni yep amul do rus fatena aduna mo moo toll foo xamante nii rusukaay yëpp daw surtout maag ku ni fàng kii ba nga deme ba ne Macky Sall le proposer bat jazz kon war nga xalaat wala xam Barthélemy Dias dal la ko tontu bay len di créer ay wax ak sos di wax pour wax lu neex nit ñi ngay wax lu la woor tu penses que ni amna jottu tok di la deglu parce que yow doo nitu dara ba Barthélemy Dias di tok di la deglu ñoko munek do mu nek ay révélation yu grave mu nek pure diffamation pure diffamation pure et dure kilifa yow moom dafa fekkee woon Barthélemy Dias ak président Macky Sall fi ñuy wax loo xamante ne ci xaaju guddi la am nee na président dafa ni Barthélemy Dias il faut ñu neutraliser Sonko parce que Sonko bu demee ñoom xalifa dem ñoom xalifa kenn du leen diig da leen di duma kon ko moom demul nañ fexe ñu neutraliser wax yoo xam ne comme ay waxu dof yoo xamante ne ñun sénégalais yi est-ce que am ñun dañoo am xel di xalaat mais dañuy toog ci plateau yi di insulter l'intelligence des sénégalais di saaga suñu intelligence yow fekkeewoo lu xew ci néeg nga bëgg a gën a xam li xew ci néeg bi ñi nekkoon ci néeg bi moo tax xale yu ndaw yi dañoo yor seen connexion bu mat toog ci tik tiktok bi di leen fenloo di leen yekk katame ñoo xam ne mat nañ leen doom parce que mag bu fenee nag xale bu ndaw sañ ko ne fen nga te bu njëkk xale dañuy jël yet comme ni ko kiy waxee da ngay jël yet dóor xale bi dóor sa doom ne ko bàyyil fen xale nit du fen deel wax dëgg mais dafa jot ñuy jàpp mag yi di leen dulli di leen fuyeeti ñi leen bàyyi leen fen di sos léegi mag bu fenee xale lu muy def moo tax xale yi dañoo pare nag toog ci seen tiktok yi toog ci seen téléphone xale yi léegi dañoo yor ba di leen loo di leen yekk keteme te doo ci mën dara parce que mag buy fen nga boo fenee moom ñu sañ laa ne fen nga loo fekkeewul lu Barthélémy Dias lu mu wax ak président Macky Sall yaakaar naa li mu génn wax rek lañu mën a jàpp li mu génn wax kese lañu mën a jàpp amul leneen waaye yow miin yow noo def ba xam ñoom liñ loolu lañu waxtaane mais arrête nañ bàyyi di saaga intelligence sénégalais yi nañ bàyyi di yablu nit yi ñi ñuy seetaan nit da na loo xamante ne danga koy ragal a wax bu dul dara sa nga set ci yàlla ma kum jëmm lii nag mooy diffamation lii mooy fenn yu tooy xep ci ay magum jëmm ba pare ñu leen di jox benn crédibilité di di toog plateau bu ne. tey ci seen scandale du jour. de ce jeudi 18 janvier 2024 fii VIP People qui di dit Djidji carte sa saa que da fay dal di def ay révélation jëmale ko ci ki nga Ousmane Sonko il faut ñu len di les faits yi tax Ousmane Sonko tok fu mu tok les faits yi tax ñu ngi lam lamé dina bok wala du bok les faits yi tax képp ku ko jege ñu ngi naan di nga bok wala du bok dem déglu vidéo bi biram sulay mo doon wax sank yeen wa tiktok biram sulay mo doon wax neena na dañuy signé pacte ak ousmane sonko tay ñun sénégalais yépp dañuy signé pacte ak ousmane sonko tay biram sulay mo doon wax basiru joomaay ñewna li tax ma andi vidéo bi tay dama am luma dégg mu metti ma trop ci wa pastef ta ñun nak ñone képp ko xamné wax nga demb sa waxu demb nirowul ak sa waxi tay lo taxawal dañ koy dajj nga jurñu wala ñu jur la nga xaritok ñun wala ñu xamanté lu mu mëna doon rek nañ taxaw ci haqq deug tiaxan waxuñ ci dara nañu deglu nak basiru jomay fay borom ndeng leer nañ ko deglu da ngeen bayyi xel bu baax ci limay tek parce que borom xel yi ñoo tax may jukki ay vidéo di indi wax ju ne dafa am xalaat kenn ku ñe rek am loo ci jang dañ ko dégg fi sel bakan rek pour projet bi 2021 mo am ni ci daanu ay jambar am ño xamantene dañu am ay gañu gañu ñi ñu dag sen tank ñi ñu dag sen loxo ñi perdre sen bët bu amé lu mu bëgg day melni ñoo ñu dañuy dé ci daa est-ce que di ngeen ko est-ce que loolu di ngeen Qui est le mooy candidat kii mooy suñu président 2024 kii le ñu bëgg kii le ñu fal est le ñuy aar demul fenn day toy aar ba 2024 ñu fal ko jox ko réew mi kon président Ousmane Sonko Sénégal a ngi nii di la déglu Take away. kon gars yi ñun ñëpp ñoo ko déggandoo Bassirou Diomaye fay moo wax nee na ñun Ousmane Sonko mooy suñu yaakaar moom la ñuy gunge amuñu candidat A ni B basiiru joomaay Faye borom lobby yi nga xam ne moo accaparé bi yépp Bassirou Diomaye Faye moo wax lii tey Bassirou Diomaye tey moo nekk ci prison bi di xalaat plan B moom moo ne woon amuñu candidat ëllëg amuñu candidat bëccëg amuñu candidat guddi kenn mooy suñu candidat mooy. Bassirou Diomaye Faye ak baat bu sew bi. mu ko tuddee sax. Alioune Mbaye Alioune Mbaye nee na Bassirou Diomaye Faye la waaw ba tey <laughs> diggante pël ak séeréer la lépp mën naa ne mën nañ leen tooñ donc euh, Bassirou Diomaye fay nee na ñoom amuñu woon plan A plan bi Ousmane Sonko mooy seen candidat juste pour diir que ñoom si bopp dañuy contredire seen bopp tey candidature kan moo jàll ci parrainage yi Bassirou Diomaye Faye te Bassirou Diomaye Faye wax na fii ba waat di amuñu candidat bu dul Ousmane Sonko donc tey bu fekkee dañ ne Ousmane Sonko mënta bokk ñoom waroon nañu gore gore bu toll ni soo bokkul duñu bokk wax naa ko fi keroog sa doom day bu jooyee dangaa war a jooy bu tëj buñ ko tëjee kaso dangaa war a futteeku ba sa ne tëj leen ma bu ko jaree sa nga def déli bu ndaw pour ñu tëj la mais dangay jooy bu jooy nga reetaan mu reetaan man loolu laa gëm ci ay doomu ndey waaye doomu ndey boo xamante ne yow boo tëjoo ñoom ñu ngi profité tey Ousmane Sonko ñi mu àndal te ñoom waroon nañ gore gore bu toll ni sagam raje nañ Ousmane Sonko sagam mënatul bokk waaye ñu nit bokkuñu ñu xaar mais defuñu loolu ku nekk mu ngi xool nan lay kutti kuttee ba am benn poste ku nekk mu ngi xool nan lay def ba jot fauteuil bee toog ci caisse noire bi moom la ñuy yóotu waaye caisse noire boobu du ko nekk lañ koy jox de du como como lañ koy jox de du koo xamante ne démb nga fël ñëw fii bëgg jaay nit yi intellectuel te xamoo dara du ñooñu lañ koy jox dañuy wut ko am expérience dañoo dañuy wut ku dal suñu xel dañuy wut koo xamante ne am nga yéene defar suñu Sénégal gii te amoo yéene yàq li nga fi fekk au contraire parce que nee naa leen ki nar a wuutu président Macky Sall dafa am problème te yëgu ko président Macky niveau bi mu toll. du ñu nangu ku koy wàccee de ku koy yéegal lañu soxla pas kuy wàccee niveau bi bu dee BRT yi dañoo bëgg ñu gën a bëri bu ñu mënee am beneen TER bëgg nañ ak yeneen ak yeneen yu ñu soxla lépp wàññeeku loolu la ñu bëgg kiy wutu président Macky Sall niveau bi ñu toll nii dañoo bëgg niveau bi yéeg. xam nga Sénégal mënuñu mësuñoo def gis mësuñu guñoo gis kandidaa euh, boo xamante ne maanaam président boo xamante ne benn naa ngay am maanaam sénégalais yi dañoo baax dañoo gore te dañuy jox nit deuxième sens. parce que président Macky Sall de 2012 à 2019 dañoo ne woon dafa commencé deful dara nañ ko jox sens ñu jox ko sens 2019 loolu fii la yem sénégalais yi dootuñu fi jox sens koo xamante ne mérité wu ko. jël nga réew mi takk mooy yaa ngay liggéey ñu gis parce que li nga fi fekk la ak fi nga ko fekk ku ñuy yóbbu ci kaw niveau bi ku koy yéegal lañ soxla pas koy wàccee pour ngeen yigee ko noonu yéen ñi bëgg a wuutu président Macky Sall ngeen xamee ko noonu niveau bi du wàcc de day yéeg soxlaatuñu niveau buy wàcc na yéeg rek ca kaw nga bëgg a jiite Sénégal jàpp suñu Sénégal gi bëgg ko pimpon ba tey ci seen scandale du jour kii di Pape Ndiaye nekk fële ca euh, Walfadjri di ma émission blanche moom nag dañ ko suspendroon mu daal di reprise waaye nag ci reprise bi xuloo bu métti métti lañ ci gis sax vidéo bi nañ ko dem seetaan ñëwaat. arrêtez oh s'il nekk si dëkk munoo nekk si dëkk am ñoo xamante ni xamuñu Sonko xamuñu Macky Sall ñëw investir ñu mel ni Total lu mel ni Shell lu mel ni Auchan ay personnes yu bari di ci liggéey di daan seen doole nga dem fa dajji ko. ko xalé agresseur d'accord d'accord non non non non non. c'est pas normal. s'il vous plaît. yaay Ndeye Mour Diop. may ma ci maanu ci eh, Diop maanu ci. non may leen non Pape. non maa ngi une minute non maa ngi une minute. waaw noppi dalal ba pare may may une minute. waaw dalal ma jox la may may une minute. dalal ma jox la wax ba xaaral maa ngi une minute. dalal ma jox la waaw non maa ngi une minute. dalal ma jox la dañuy leer maa ngi une minute. naanal naanal la naanal la naanal la waaw waaw waaw damay leer non naanal ma damay leer. bon mais nag may may une minute ma leer non non mais Pape mais Pape Pape Pape kaasu café moo gën a tàng te fukki dërëm lay jar. kaasu café moo gën a tàng te fukki dërëm lay jar. Diop Diop Diop Diop. kaasi café moo gën a tàng te fukki dërëm lay jaar. ok dégg nga. li nga wax man waxaguma ko. li nga wax man waxaguma ko. bàyyi ma wax waaw waxal waxal. jox nañ la waxal waxal. non un peu de respect un peu de respect. léegi Mour Diop. ñoo ko déggandoo ñu ngi laaj lan moo xew ci plateau bi pourquoi ñu buddee plateau bi pourquoi xuloo bi xew vidéo baa ngi ni lii moo indi wax ci la fait que Gadiaga wax ni le problème de Ousmane Sonko personnel tax na ñu yàq ay Auchan yàq ay Total yoo xamante ça n'a rien à voir ak président Macky Sall maanaam nit ñoo ko indi fii mu nekk ay entreprise yoo xamante ne ñun sénégalais ñoo ci liggéey sama papa papay keneen ndijaay keneen tantay keneen ñoo nekk ci Auchan yi ñooy liggéey ci Auchan yi ñu yàq ko ci ci ci problème personnel doomu aadama gars yi yàq plateau bi Pam Ndiaye nag amoon na ay temps weer ci ginnaaw dañ ko doon tàccu bravo ndax li muy wax dafa am ñu mu arrangé woon moo tax sa papa ji daf ma jàngal ni booy wax bul wax li arrangé kii bu subaa boo waxee li arrangé keleg li kii dalay mere da ngay wax li arrangé ñëpp da ngay xool loo xamante ne lijjantiwoo ku mu arrangé ak ku mu arrangé wul nga def ko ci loolu lañ ma jàngal te Pape Niang bu doxoon ci loolu xëy na problème bi du am parce que xam nga lu tax problème bi am dafa am fu ñu ko doon séentu nekkatu fa am feneen fu mu nekk moo ko jural problème bi amul leneen. dama bëgg ñu seetaani beneen vidéo bu ci topp ci Pape Niang. bàyyi moo mu yaa sabar suñu émission Cheikh Mbacke Gadiaga bi ñuy ñëw dañu ko wax yow yaa yow ay parents parents yi jóge Malika ñuy tëngeej ñuy risque ñoo dem manque leen de respect yow bi yow Pape Niang yi respecté woo ñu ñu ñaam seen i doom tëj leen jaay leen doole nga yàq émission bi mag génn nga yow yaa saw démission bi yow yow yaa saw démission bi yow yaa saw démission bi Pape Moussa dafa war a leer leeral leen yéen seen màggal bi muy ñëw yëgu ko kenn yëg ko na leer Sénégal yëpp ñu ngi leen déglu na leer leeral leen ko ñooñu fi yow Pam Ndiaye bi muy invité seen màggal ga en tant que chroniqueur est-ce que yëgal na yëguñu ko yëguñu ko ne euh, euh, dafa waroon a ñëw ci euh, jotaay bi ndax jotaay bi dañu ne dañ ko jagleel détenu politique que moom dafa ñëw di politique. dëgg la dafa ñëw di régler ay compte politique am dafa ñëw bokk ci parti di ngi ci émission a wax détenu politique ku ci nekk nag ci ñi nga xamante ne i jamono jóge ko sori. ñëw man dama jàpp ne lii ñu def tey ñaaw na rafetul te ñun ñi nga xamante ne. dugal ko doon ñoo ko déggandoo ñoo ko seetaanandoo kii nee na Pape Ndiaye commencé na dëbb réew mi jox nañ ko RDV 24 2024. émission ba tas na émission ba kay tas na taset émission ba tas na taset te Pape ñaa ci benn côté il est responsable de. il est responsable Il na pas pas de responsabilité parce que à na ay temps il n'y a ni mu doon waxee ba sénégalais yépp jàpp ni mu ngi ci camp ex-Pastef bëgg changer veste bi duñ ko nangu duñ la may jàmm yow dootoo amati di nga dégg ne lu ko dégg bu suñu borom parce que ñoom duñu nangu ku jóge ci ñoom duñu nangu ku du ñu nangu ki invité keneen kooku di wax si ñoom gajaga lu mu wax man je suis pas totalement d'accord avec lui parce que ay détenu politique ay détenu yi nga xamante ne seen mbokk yi ñu ngi toog am loo xamante ne xol-xol rek la mais nag <laughs> ci manifestation yi la ñuy yàqee Auchan yi ak Total yi manifestation yi kan mooy cause bi c'est Ousmane Sonko lan mooy problème bi c'est Adji Sarr loolu mooy problème bi donc Pape Ndiaye sérieux problème la am parce que fu mu nekk nii dafa bëgg a détourner veste bi maanaam bëgg nekkaat <laughs> le bon journaliste wala le bon présentateur boo xamante ne faroo fenn du yomb de il faut il faudra beaucoup de chemin pour nekkaat fi nga nekkoon pour am li nga bëgg parce que ñoom du ñu nangu camp boobu nga jëkkoon nekk duñu nangu ku demee noonu de. di nga dégg ne. ba tey ci seen scandale du jour de ce vendredi 19 janvier 2024 fii ci VIP People kii di Pape Moussa Sow di chroniqueur moom ñu ràññee woon ko ci euh, mën analyse ñu ràññee woon ko ci ki nga xam ne dafa tëddee jaaxañaay maanaam farul fenn moom nit yi la fi nekkal sénégalais la fi nekkal mais dañoo gis ni. Pa Moussa boobu nekkatu fi Pa Moussa boobu xàmmeetuñ ko Pa Moussa boobu xaw lan moo xew ndax en tant que juriste ngay wax yow en âme et en conscience xam na ne lii fenn lii yenewul maanaa parce que tey man je me dis que ba man nangu ni sénégalais ñoo état wala di président Macky Sall moo xañ kii di Ousmane Sonko li nga candidature am nañ déglu révélation yi nga Pa Moussa Sow def libération de Ousmane Sonko ainsi que tous les détenus politiques loolu dañuy le 25 février kenn voté votelul benn candidat qui déglul campagne. ah oui. si ñu téyee Ousmane Sonko fii ñu ko avec cette injustice flagrante bu gars yi ci urne ba le 25 février dañuy dugal xob bi pour la libération de Ousmane Sonko dañuy dugal xob bi pour ñu jàmmal Ousmane Sonko dañuy dugal xob bi pour que les li nga xamante ne notre lañ démocratie ci réew mi ñu tënki ko. démocratie bi dañ ko li Bamba di wax xat fatkat kabla tënki fu ñu bu Ousmane Sonko fiñ ko par cette injustice flagrant Bonne injustice de quelle injustice Moussa Sow lay wax boo leen ko xamé ngeen wax bonne injustice le fait que mu togn ñu yobbu ko yoon ñu atté ko Lolu moy injustice mais arrêtez pas Moussa Sow yow en tant que juriste nga xam li yoon wax ak li yoon tare nga gis li Ousmane Sonko def fii Sénégal nga dégg li Ousmane Sonko wax waaye yow nga ne injustice moo tax Ousmane Sonko te fële ban injustice lan moo injustice le fait que ñu atte ko lan moo nekk injustice le fait que ñu tëj ko lan moo nekk injustice le fait que ñu tas parti bi nga xamante ne dañ leen di reprocher maanaam dafa am ay rebel huit cinq d'inculpation yi nga xamante ne teg nañ ko ci Ousmane Sonko tax nañu tas parti bi parti boo xamante ne kaay leen ñu xeex ñoo leen ñu dem rey ñoo leen ñu dem sàcc waaye yow parti boobu ñu fan la ñu mën a jëmale injustice ban la Sonko si biir nañu waxante dëgg ban injustice xuloo nga ak ñaari nit yóbbu nañ la yoon war a atte nañ te yow mu leer na ni nekkoo si dëgg Ousmane Sonko xam na ni il a fauté Ousmane Sonko li Abdou Nguer wax bi mu tegee tànkam si huit ba tey la renoncé carrière am politique. bi mu demee ba jël décision ñu nekk en plein couvre fa kenn warul génn kenn warul dox mu jël tànkam teg ko Sweet Beauté ne day dem faju te ba léegi génnewuñu ban maladie la ñuy faj Sweet Beauté Sonko ci diggante bi jàmbat na fi feebar bu nekk waa Sonko moom ban injustice lañ ko tëjee ani injustice bi mu tuumal doomu jàmbur kooku jël initiative jël engagement yóbbu ko ci yoon pour ñu atte mu setal daram mu dem ñu daan ko waaye loolu mooy injustice Pa Moussa Sow en tant que juriste yow war nga toog naan Ousmane Sonko injustice lañ ko tëjee nañ arrêté nañ arrêté manipulation bi dafa doy te xaaruñu ko woon ci ay juriste xaaruñu ko woon ci ay chroniqueur manipulation bi waroon nañ ko xaar ci ex-Pastef mais pas ci juri nag du fenn fudul ci Idrissa Seck kii nag dafa def ay témoignages yu rafet jëmale ko ci ki nga xamante ne muy mooy Idrissa Seck moom mi nga xamante ne candidat la ci euh, élection yi nga xamante ne ci la ñuy jublu muy vingt 2024 le 25 février 2024 fii ci suñu réew moom nag nee na kii di sa Seck ku ko jox réew jox ko ku xam réew ku ko jox réew xam ko ku jox ko ku xam état ku ko jox réew jox ki nga xamante ne dafa xam sénégalais maîtriser leen xam Sénégal nu mu war a demee xam fi mu war a jëlee senegal ak fi mu war a yóbbu Sénégal ñu seetaani vidéo bi ñëwaat. dëgg yàlla muy Sénégal kenn laa gis ne moom moo mën a sauver senegal ci jamono ji ñu nekk nii ci coow yi mu am ci problème yi am ci gàllankoor yi Sénégal nekk muy président Idrissa Seck parce que président Idrissa Seck xam-xam baa ngi fi mën-mën baa ngi fi xarañ baa ngi parce que nekk na koo xam ne tey kenn du ko nattable ci état yim jaar liggéey fa liggéey yu am solo nekkoon fa nekk yu am solo te président Idrissa Seck kenn du na table ci xam-xamam kon kooku noonu man moom laay proposé Sénégalais yi ah waratuñoo fal njiitum réew ci ay mer ngemb waratuñoo fal njiitum réew ci ay parparlo waratuñoo fal njiitum réew ci ay xuloo ko téesante taasante parce que loolu chaque jour mooy delloo Sénégal ginnaaw parce que njiitum réew bu ñu fa fal ci ay par parlo suñ ko deux jours trois jours mais dañ koy réccu parce que faluñ ko ci compétence faluñ ko ci xam-xam faluñ ko ci dañ ko fal ci ay neex neex day qui to en tant que Sénégal bëgg bay mom nak nee kenn mo wara mëna sauver suñu Sénégal du kenn ku dul Idrissa Seck démocratie la nak ku nekk am nga droit wax sa point de vue ki bu newé ni Idrissa Seck mo wara mëna sauver Sénégal kenn mu ngi naan Amadou Ba mo wara sauver suñu Sénégal kenen mu ngi naan Karim Wade mo wara ñëw indi changement donc chacun est libre de dire ce qu'il pense di wax li nga xamantene aussi moy suem mais nak limu mu wax aussi ci benn côté dama ci and ak mom moy lan xam bi xam bi xam bi Idrissa Seck xam état xam bis Idrissa Seck xam politique ndax nag bi mu fi dalee bi mu dalee politique ak léegi dafa yàgg ndax nag mën naa ne jiitu na ñun suñu juddu ñun ñi nga xam ne ñoo fi toog di ko wax donc du du gan ci langue bi euh, du ci ki nga xamante ne démb la ci ñëw mais da cee yàgg lool xam politique xam Sénégal mais nag am yéene aussi jiite suñu Sénégal moom mooy Idy 2024 tax moom it mu nara a jongante ci élection yi nga xamante ne ci lañ jëm mu nekk kaddu yoo xamante ne kii di bëgg bàyyi na ko nee na moom am na yaakaar ni euh, moo war mën mën suñu senegal ba tey ci seen scandale du jour de ce vendredi 19 janvier 2024 fii ci VIP People kii di Nabou Dash nag ginnaaw bi mu waxee ci ñenn ci sëriñu daara yi ci am um, violence beeg ak lépp li nga xamante ne mu ngi xew si daara kii di Matar Sarr nag dafa jug daal di plainte ki nga xamante ne mooy aji Sarr waaye nag kii di Ahmed Cissé Euh, borom ànd laa buri moom nag ginnaaw bi mu demee Europe daw dem lakkatu fa waaye nag dafa def vidéo boo xamante ne dafay daal di défendre ki nga xamante ne maanaam dafa déggal les propos de euh, Nabou Dash nañ jëm seetaan vidéo bi ñëw a damay puus Nabou Dash fële man mi juddoo ci daara yaroo ci daara màggee ci daara màgg am daara ba tey fi may waxee ma am daara may wax ak yow am na ñu doon ay sàcckat ci daara ja leen miinee sàcc nit ku dem daara ba ñëw seexlu fen nga xam ne kii du fen dafa jafe. yéen ustaas yi xam ngeen li ngeen maanaam li gën a métti ci yéen mooy fen ak tappale ak def dara ñu ne la yaa ko def nga ne defuma ko loyalty nit yi dara daf ko manqué gëm sa bopp nit yi dara daf ko manqué te koo ci gis mu ragal coono di nooyal sol xaftaan ak duufal lex li ñuy wër rek mooy jeeg bu am alal mais nanguwu ñoo toppatoo benn jigéen seen awra yi gàtt na gaaw nañoo daanu bëgg neen jigéen lii mooy li am wax ko nag su fekkee mooy xeex daal kon man jàppee leen ma noonu daal su fekkee wax li am te dund ko ñun ñëpp ci daara yi mooy xeex daal. ñoo ko déggandoo ñoo ko seetaanandoo moom nag def na ci analyse bu pertinente te muy dëgg am na daara yoo xamante ne euh, la plupart ñi fay génn dañuy nekk ay sàcckat dañuy sàcc te euh, ñenn ci sëriñ yi si boppam yàggul dara fii ci scandale proposé naa leen fi vidéo boo xamante ne sëñ si. Euh, oustaz la daal di euh, violé di tëddee ñaata xale neuf yoo xamante ne douze treize ans lañ am kooku oustaz la kooku ku baax la donc Nabou Dash li mu wax boo ko ci porté plainte aussi ku moom xar bi nga nem nga bàyyi buum bi xëy na da ciy gis boppam mais maanaam kii lu mu wax parce que taalibe yi léeg-léeg dañ leen di yët lu ñu mënut temps ngay versé temps ngay indi. yóbbee leen sàcc du ñëpp nag te donte dañuy jàng alquran moom ci daara la nekkoon ñaata oustaz ñoo ci nekk di daara di violé di tëddee jabaru jàmbur yi tamit nañ waxante dëgg di violé di tëddee jabaru jàmbur yi nga ñëw ñaan si nga ñëw def wut si ay ñaan ñu liggéey la ba tëddee la wala ñu naan la simbeekul maa lay sang wala maa la war a takkal lii ñaata oustaz ñaata oustaz ñoo fi violé toppoo leen si yoon maanaam nag bu daal moo ñaaw yaay Sénégal daal neex na Sénégal non Sénégal dafa neex lu waay neex def plainte moom da leen yomb plainte moom da yomb ñu jóge ci daara ji ñoo wax de kii ci daara lu jóge te moo ko wax jadi tey ci seen scandale di jour ginnaaw bi Youssou Ndour teggee grand balam dañ fa gis ki nga xamante ne mooy Adji Sarr Adji Sarr nag ku ko tudd tudd Ousmane Sonko ndax Adji Sarr suyut ba te Ousmane Sonko looloo lëmbee dëkk bi looloo taaloon dëkk bi looloo tax ñiy dee dee looloo tax ñiy ñàkk seen liggéey ñàkk seen liggéey ci Adji Sarr Sonko man nag je me dis que la responsabilité elle partage partagée si ñoom ñaar ànduma ci ak kenn nag sama yoon newul ci Adji Sarr lijjantiwuma Sonko mais maanaam ñoom ñaari les responsabilité a été partagées te ñoom ñaari ñoom ñoo ko yenu

ay fenam qui ñu bari jusqu'à présent dañoo am blessé handicap mu ngi ni tay ci benn soirée ak ay motax billahi wallahi tallahi gis ngeen système bi bu ñu fexewul le 25 février 2024, nous ñu wallahi lu way xam na boté doom lu way xam na le doomu aadama bi ndax kii war naa génn bala dem ay soirée sol lu gàtt ba pare nag ñu protéger ko dem si ab si si si soirée baa xamante ne quelqu'un qui est très reconnu ici euh, international si aw fenam ay nit dee si tey jii mu ngi nii libre comme le vent di circuler partout innocent yi ñi nga xamante ne dafa ñu dara ñu téye leen si kaso bi gars yi dem leen jëli seen carte d'identité dem leen jëli seen na Adji Sarr moo rey les quarante morts Adji fenam moo yóbbi senegal takk Adji Sarr fenam moo tax ñu tëj Ousmane Sonko mi waroon jiite am nga si droit di sa xalaat la te dañ la koy nangul waaye man it am naa droit wax sama xalaat d'accorduma ak Adji Sarr ànduma ak Adji Sarr waaye Adji Sarr nee na dañ koo tooñ te ki ko tooñ du kenn ku dul Ousmane Sonko. mu porté ko plainte ba pare teg ci dafa défier Ousmane Sonko té Ousmane Sonko défi bobu noonu Ousmane Sonko da ci daanu ba xalangu ndax mu défi bi us Adji ko cee gagné dafa le ne ci début procès bi ne Ousmane du mës a nangu jàkkaarloo ak man mu nek ben benen bi ci top Ousmane du mës wat ci Kamil bi nga xamantene mom la fi yalla wacce mom lañu gëm suñu alcorane bi ne xamuma te xamul Sweet Beauté te ba tey Ousmane Sonko waatu ko ndax dafa njëkkee wax dem na fa delluwaat ñu ne ko hmm, dem nga fa waxal dëgg bi mu wax dëgg ne demoon na fa def naa fa dix minute une minute loolu suñu yoon néew ci en tout cas Sonko demoon na Sweet Beauté Sonko xam na Adji Sarr xamante nañ ñoom ñaar te Adji Sarr nag ginnaaw bi kombaam bi jeexee nag waaye yéen Adji Sarr du féexal xolam sénégalais la ñaata sénégalais ñoo fiy jote ñu dem gendarmerie ñu jàpp kenn ki kenn ki ñibbi këram waaye daa tax kooku tamit war a nekk ci prison pour lan pour lan Adji Sarr war a nekk ci prison pour lan Adji Sarr warul génn ñoom ñaari ñoo jote Adji Sarr di sénégalaise Ousmane Sonko di sénégalais ñu jote dem yoon yoon atte leen ñu tëj Ousmane Sonko waa Adji Sarr léegi dafa war a tëju pour la ñoom ñaari ñi dee ñoom ñoo bokk responsabilité ñi ñu yàqal. bu ñu ne baaluma Ousmane Sonko nañ ci teg baaluma aji Sarr ndax aji Sarr moo éclaté deal bi aji Sarr moo weer Ousmane Sonko moo wane le vrai visage de Ousmane Sonko ñi ànd ak Ousmane Sonko nag loolu naqari leen ñu yàq bitiku jambri di lakk Auchan yi di lakk fu leen neex lu leen neex entreprise privée yi nekk ci réew mi lépp ñu saccagé ko yàq ko ci plaisir Ousmane Sonko ci li neex Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko xam na Adji sar mais nag Ousmane Sonko fi mu toog sagam nee ngeen mu ngi xàppi mu ngi dund waaye yéen bàyyi leen Adji Sarr moom it mu dund mu xàppi ah yéen tamit arrêté leen waaw Ousmane Sonko mu ngi fële prison donte mi nekk prison moo nekk di xàppi di kaf di rii di football di entraîner di wax lu ko neex di seetaan télé di wax lu waaye yéen waaye Adji moom amul droit moom it génn ci nit yi di bëgge Adji Sarr xale la di amagul jëkkër di te daa war a am jëkkër ah Adji Sarr tëju na de 2021 kenn gisul Adji Sarr lu dul diggante euh, këram ak ak ak tribunal 2022 2023 bi jeex mu commencé béy ci 2024 bi ngeen naan ko na na tëju pour la waaye bu gisee ni nekkul ci sécurité amul droit jël ay sécurité ñu yóbbu ko gunge ko en tant que jigéen ah arrêté waaye sagam Sonko mu ngi xappi prison waaye us kii Adji Sarr moom it na xappi fii na dundu Sénégal jëm kanam sama xalaat laa wax nag faralu ma si ñoom ñaari kenn sama yoon newu ci kenn mais vidéo bi donte ñoo ko seetaanandoo waa ji wax na xalaatam ni Adji Sarr warul génn waa man nee naa Adji Sarr war na xàppi ni Sonko di xàppee prison parce que yeneen ni Sonko mu ngi béggee prison mu ngi kaf mu ngi ree donc Adji Sarr xàppil dafa lu la saf ba tey ci seen scandale du jour waa ji li mu wax dafa am solo xam nga Sénégal suñu journaliste yi bu ñu doon compté matuñu dix si ñu ragle matuñu dix journaliste de Sénégal fii bu doon su compté journaliste yi réglé yii topp actualité di ko wax yi nga xamante ne du ñu xool lu neex ma Masamba ak ma demba ñi nga xam ne dénoncé bu jotee dañuy dénoncé ñi nga xam ne révélation bu jotee dañuy topp kaa bi ba mu sës indi ñu ay information yu leer teg ko ci table bi ñi nga xamante ne xooluñu lu neex Sonko lijjantiwuñu lu neex Macky Sall maanaam askan bee leen ñor diis bu ñu matee diis ngeen wax ma journaliste yëpp la ñu jënd. journaliste yëpp la ñu corrompre journaliste yi doo xamat kan mooy journaliste doo xam kan mooy juriste doo xam ku fi nekkal askan wi dañ dem seetaan video bi ñëwaat. jox ma seen waa ne yéen ñi takkoon rajo yi di wax ndax man Sénégal rek laa gis ay journalistes yoo xamante ne bu président mag Sall photo ak aw stické dangeen ko def débat def ko ay émission ba président mag Sall photo ak Khalifa Sall dangeen ko def débat def ko émission ba. ba ba ba salu ba yàqoo fële ca gare da ngeen ko def émission mais bu bees sàq ñëw na kenn sañu cee ŋaang yéen maanaam man Sénégal rek gis ay journalistes yoo xamante ni jamais ñuy wax li baax ci dëkk bi ñoom li ñàkk solo la ñuy wax lu bon rek la ñuy wane nee naa la ginnaaw suba la ñuy inauguré BRT bi ba tey defuñu ko actualité billaahi parce que bëgguñu ko président mag Sall sa dëkk bii mooy la seul dëkk boo xamante ni say tiktokeur ñi la bëgg dignement bëgg seen Sénégal dignement bëgg sa beau pays dignement ñoom rek ñooy wane sa liggéey ya tiktokeur yi ñooy wane wane ñooy wane liggéey dëkk bi léegi boo leen xoolee journalistes yi léegi ñoom débat sur débat temps yëpp ay Bassirou Diomaye Faye Sonko fële fii ak fii alors que ñoom jëw xam nañ Sonko du bokk mais manipuler matin midi soir mais nee naa leen ku xeexul tey billaa bu subaa di nga màtt baaraam bi ceex ñii duñu ay nit ñu baax code laa wax ne code code journaliste yi nii ñuy xoolaat ni dañ ko war a xoolaat saytuwaat ko génne fa ñu bëri ndax duñu ay journaliste dafatuñ sax luy rôlu journaliste ndax man ci ñoom da laa gisee ay nit ñoo xam duñu wax dara yu dëkk bi ñoom seen intérêt bopp rek intérêt bopp rek moo tax ma ne leen man Jean bu Macky ñàkk gis liggéey président Macky Sall moo ma ko teree wane mais billaay chaque jour dinaa ko wane dignement et fièrement journaliste yoo xam ne lu négatif rek la ñuy yàkkamti mu am pour ñu dénoncer ko te lu baax su amee duñ ko wane ni ko waa ji Awouskity mi nekkoon euh, Dubaï di saaga président Macky Sall bu ñu gisee mu fotow amul benn sit internet bu ci waxul amul ku ci waxul débat nañ ci wax nañ ci revue de presse nañ ci Kaliphone bi mu saaga président ba xolam sedd mu ñëw tuub président ñu gis ko ak Kaliphone débat yi barki Dembo Ndiaye bi Sadio Mané takkee interview nañ ba interview tailleur ba interview borom salon ba parce que looloo leen ñor BRT bi ñu inauguré kenn waxu ci donte président Macky Sall moomu ko encore une fois ñun ñoo ko moom kenn waxu ci mu waroo nekk actualité mu waroo nekk lu ñu war a fësal ba pays Afrique yëpp ñi gën ñoo ñee parce que ñee nañ ñu ba pare. gën ñoo respecté gën a xam li président Macky liggéey parce que nee naa ne loo ko bañ bañ nangul ko ne liggéey na. foo ñu koy wax liggéey bi il faut ñuy fësal suñu Sénégal gii liñ fi def. ndax ñu lañ ko defal bi jamono takk-takk yi di am ñëpp a takkoon seen seen seen seen seen micro ak seen caméra fee ngi takk saa sëf waaye léegi saa sëf pas c'est la paix waa paix boobu doo leen ko wone yéen doo leen ci wax les journalistes doo leen ci communiquer ñiy toog ci plateau yi doo leen ci wax mais indi Diomaye Faye jàppal Sonko indil Amadou Ba jàppal sonk vous parlez que de ça te loolu léegi miis nañ ko suñu suñuy nopp ñi xamul droit sax xam nañ léegi droit ndax wax yu bëri ndax article yi ngeen di wax ñun ñëpp xam nañ léegi article yi lu ñu wax L27 lu mu wax xam nañ ko L26 lu mu wax xam nañ ko mais on n'a pas besoin que de sax soxlawuñu loolu kese dañoo soxla bu ñu defee lu baax suñu réew mii te nga xam ne am na yeneen réew yu ñu tëg bët ñu ñuy seetaan tëg ñu bët parce que la vie tout est concurrence lépp concurrence la lépp concurrence la donc ñun bu ñu amee lu baax waa duñ ko ex duñ ko exploiter duñ ko wone ba Afrique gis ko tey ñëpp waroon waxtaanee ni Sénégal am na ay bisu BRT Sénégal inauguré na BRT mais kenn waxu ci parce que bu ñu waxee kenn waxu ci c'est parce que minorité ñoo ci wax te majorité bi moo waroon wax tey dafa waroon nekk actualité ñu waroon tey teg ñi nekk APR wala ñi ànd ak président Macky Sall teg leen ci plateau yi ñu wax liggéey bi félicité te ñoom aussi am nañ ci part de responsabilité ñoom bu ñu liggéeyul gis ni ki leen fal parce que am na ñoo xamante ne président Macky Sall moo leen teg ci seeni poste ngal la dañoo war a génn wax au nom de président Macky Sall ñu remercier ko yi xam ni ah ñii kat ñu ngi ànd ak président Macky Sall mais teg nañ bët lu muy liggéey te ñu ngi koy wax mais du ñu wax quelques influenceurs ñooy toog di ci wax ku ci mel ni bouclier 35 loolu mooy liggéeyam. wane liggéeyu président Macky Sall influenceur la nekk TikTok di wane gaynde mat ki même chose la tigresse de Macky Sall ñoom ñooñu laa mën a ne ñoom ñoo fi nekk te ñoom du ñoom ñoo war a wane télé yeeg site yeeg cee war a wax parce que bu wax jotee ñun ñoo fi dàq wax nag Sadio Mané bu mu takkee débat bu ne teg nañ ko fi dem nañ ba interview tailleur yeeg ki ko jaay dàll ak ki ko jaay poset ci loo xamante ne qu'est-ce que ça peut nous apporter ki ñëwal euh, jabaru saa Mané j'ai rien contre Elan exemple lay joxe maanaam li ñuy war a wax mu ngi fi ne fang te waxuñu ci te dañ cee war a wax donte lu baax la dañ kee war a wax ñu bañ a focaliser juste ci lu négatif tey kaa bu amoon kaa bu négatif ñëpp topp ci njàpp sa bu mu jógee ci Siri Diop dem ci Waly kan moo ci ngaangum ñaata plateau lañ ci teg loolu lan la ñu mën a apporter Ndiaye Pouso gite na ci Sidi dem na ci Waali BRT bi nga xam ne inauguré nañ ko waxuñu ci pour lan mu nekk loo xam te lu positif la ñun ñëpp a ciy bénéficier wu parce que ku ci yéegul sa ndijaay dina ci yéeg ku ci yéegul sa jabar dina ci yéeg ku ci yéegul sa jëkkër mu ngi ciy xëy géejawaay dem donc nañu wax luy baax nañu wax baax baax yi fi nekk nañu wax li fi président wax loolu suñu cër boo ko waxee ñu ne danga far boo ko waxee ñu saaga sa ndey boo ko waxee ñu ne la dañ koo jox ay million te donte yow xamoo sa ministre xamu DG bu gën a ndaw xamoo ko mais loolu lañ lay wax. you go, God, don't come yow mi am jafe-jafe ci wàllu néew kàttan sa ndoxu awra baaxul wala sax sa awra nooy kaay ma jox la solution bi ci gën a gaaw produit 100 pour cent bio baa ngi nii muy produit boo xam ne dafa naturel amul benn effet secondaire dañu la koy jox nga boole ko lem ak limon di ko naan matin ak soir mu daal di saafara say jafe-jafe neexal sa biir néegu sëy am nañu pommade boo xam ne boo ko diwee ci sa awra mu daal di kuy dëgëral di jël ko waaye nag du ko guddal ma ni la bile moom itam dafa naturel lépp loo ci jël la le ben effet secondaire Jokol ak ñun yow mi ci 77 751 59 59 ou wala 76 313 93 94 Nous, suñuy produit dañu la koy jox nga am ci satisfaction totale boko amul ñu daal lay sa xaalis ñun rek Uba pour la première fois Dibiteri professionnalisé professionnel ndawal musoko am suñu marinade un am suñu secret bop. McDonald amé ice cream. non la Uba amé ice cream. dibi Uba ouba, Michui ouba, poulet ouba, pigeon ouba, pentade ouba, bol ouba. Kaimorle fou wax la 77 629 0000 fa safiap 77 633 57 57 Fou Michui Nehe, Moui dibiteri ouba Fou poulet Moui dibiteri ouba te nag kaay dibiteri ouba Commandel, ñu livrer le fangané. Boule tamit nga Tok qualité de qualité